moo di kafaf ëpp murit te ab sang cey la ko dal nun ñëpp yàlla nanu lii mooy faw mooy gu rafet tabarka dal nu ci kaw bopp lu dal sunu xel ku ànd akuk dex lu muy ñaanee ndox ak awut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 bal bil bushaaraati mimman maa lahu saani bi jaahi waasitati il marjuwi rahmatihi xadiimi nuuril baraaya xayra hadnaani halay aska salaatil hayyi mursilihi bilaali wasabi man saddu anil faani nihma rasuulu wa nihmal aalu kulluhumoo nihma sihaabu wa biisal kaafirul jaani bihim wa bi cheikhi abri xayra maxfiratin wa rahmatin wa sawaabin kulla azmaani bihim aruumu xada haaji huna wa gadan bihim ganiitu han ixwaani wa awtaani hani jasaahum ilaahul harsi xayra jazaa yafuuqu kulla jazaa xayrin bi ihsaani habli qusuuran wa aswaajan mutahharatan hunaa wa hannaa bilaa shakkin wa nuqsaani waxud ilayya mun addaarayni qawdaridan jamiihahaa wakfinii waswaasa saytaani yasir lanaa xayran iswaanin hunaa wa gadan wa xayra duurin wa xilmaanin wa ridwaani auusu billaahi min assaytaani arrajiim bismillaahi arrahmaani arrahiim wa sallallahu ala nabiyihil karim ña jébbaloon yàlla ak yonen ba seeni bakkan ak seeni jur raw nañu ñàkk ak lu dee ragal ña jébbaloon yàlla ak yonen ba seeni bakkan ak seeni jur raw nañu ñàkk ak lu dee ragal ñoo def lu wérul lu rafet ñoo am lu wér lu rafet ñoo nangu nangu nawet ñoo war saxaari ndigal njëbbal gu wér rekk wér moo am njariñ ku ko def raw lépp loo bañ te jot loo bëgg jag te jagal ñi lee ngi bafungu ñi lee ngi waaxu ñi wari fas murit ya faf gaalu cant benn fëxal ñi lee rootaani ñee ngi jaj ñee di nasal murit ya faf soobu gee jug mbég balab di labal ñi lee ngi jàng arool ak aajaroo makina murit ya faf xëy ni ràpp ak yàlla jàpp ko jël ñi lee ngi bay ñii ngi jaayaatoo kasakku alal murit ya xëy taawu junni junni ak palipal ñi lee ngi fu ne kay laaji yoon aki sil murit ya tëb ni ca dëkkub ndam cëpp feetal jam lépp faf lare lépp ak ñépp fenke ca kaw raw seeni kem seeni kem xëy ngéejulee na dawal kalanda dal du murit du sang moo di ka faf ëpp murit te ab sang cey la ko dal nun ñépp yal nanu lii mooy faw mooy gu rafet tabarka dal nu ci kaw bopp dal sunu xel ku ànd akuk dex lu muy ñaaneeti ndox ak awut boob jant fenkee lu ñuy niit ak lu dee si ragal أعوذ بالله من te warab bu koy xaj di baw nay yokku xel rewagul dawal baraw ñi yuuxoo kasoo wa kanaw te warab bu koy xaj di baw nay yokku xel rewagul aw rab nee meŋ dootoo seeru xaj bu ko baw ku dee fi yéema kanaw kookee asal rewagul marax bu maasee ñu naa bi diw bu leera nga nee weerit bu feqee ñu naa gi ëpp na xel te xam ni jant bu fenkee kenn du yéema kanaw ku dee fi yéema kanaw asal rëwagul sayaana ngi dégge ngi ab teena ngi dexe ngi te géeja ëpp leenum ndox xarit xalamal teewul ku nekk fasay kem ngay manee amu tur ku am fasay kemu tur saw ŋàññi rot na asal gasal di wey yawte bul geesooti jal ba nga gas kuy gas di geesub jalam lay ngën ji ndam du ko jël te jal bu sax du ndam xëy bënn rekk di ndam loo rëyub jal te bënnoo ndam demul dikkagul gasal te bay bala ngaa am ndam lu kenn amul sa jajji bënn sa toolit ñor nga mucc musal sëriñ bi yàlla na nu may ay jajjikat yu sawar te may nu nuy jajjloo kay jajja kay rafetal te yàlla na yokk sunuy xiiwal te yokk nu gëm te dolli nu ite may nug way ci topp ndigal te yàlla na fab jépp lor jox faw gaayanu moy te jox nu faw ngëneel ak mbég mu kenn amagul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 njegam bëgg nga yow sag murit jag te wér moyul marsandiis ak jigéen ak pexeem moyul marsandiis ak jigéen ak pexeem te diglu sax ay waxam mbaa tereem ku dul moytu yi yatt kay daw bu wér akay muslu woona asal tus kareem te kët yett yi ñoo di waŋ dañuy muusu itteem akuk taalubeem te kat ak max ba tey murit te na mboolem murit yépp asaam ku bëggul lu dul yàlla ak raw bon na def yi bayit cib xolam ak jibaam murit dëgg day sàmm cër sàmm xol du xoolee dem fiw jigéen nit nekkaam ku sàmmi cëram yépp sàmm xolam du gis jenn lor ndax te génnul sa ku jóg tàbbi dex war saxaarug ndoxam gu wér doo ko gis labbu génnul pëkéem murit boo fu gis nag pëkéemay ndigal bu cay jóg ni can ndax dexuk alkuteem ku génnul ndigal nag du gis ak mbugal ku xam aw ko awloo ay fereem waxal nag sa bopp sa waa kër bu wér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 عن النبي عليه السلام أنه قال ليلة الأسرى إلى السماء أوساني ربي بخمسة أشياء فقال لا تهلق قلبك بالدنيا لم يخلقها لك wajal mahabbataka fiya fa inna masiratakum ilayya wajtahidu fi talabil jannati wa kun aysan min al xalqi fa innahu laysa fi aydihim shay'un wa dum ala tahajjudi fa inna nasrata maha xiyaamil layli ngi silmaxaa ngi gàddu seeni fetal di téq kay moya kay jam jàpp rekk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 tinul ñépp yow boo tinoo yàlla tin te nit ñépp a ngi yox yoxee kay ragal jógal ràmm mbaa gëm yi dem nit ñi bon bu ab sàmm ne cell jur gépp jee bu jur gépp jeexee lu muy sàmm kon ba nuy dëddu kër baay ak yi ndey di ñëw wutug mucc a tax mbaa lu nuy wursi kon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 cërub nit cërub nit ku bëggit ba dagaanal xër dëddu ak itte yow te wut na kerug doy lu far tëdd kerug doy lu moo fegal naaju lor seral sab xol ak saw yaram yendu fa te bul jàq bul rët ngirub yàqkat fa mbir yey ba woo yàqkat yéggu fa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 mer ak jàpp mer day alak am murit meral say ay bi yow gërëm sëb sëriñ di daw nem nag ba am ay murit jom ak jikko ak fulla yi yetta bon jigul rëbbakuub dak jigul am murit ku am yett yi kat du am yett yi ngërëm barke wërsëg yëgal lii murit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 nit ñi nga gis jëruñoo waxal jëruñoo defal loo man di def yow dee ko def ngir yàlla daal nit ñi nga gis jëruñoo waxal jëruñoo defal loo man di def yow dee ko def ngir yàlla daal loo wax waxit ñuy def lu bon loo def defit ñuy def lu bon loo jub ñuy dëng daal loo soññ soññ ñuy saxar mbaa sax ñu fay kuy def jërét seytaane ñëw fay kooti daal loo xam bu kenn du noo yaka waaja bax waxu may wañax tey lii kërëy mbir am na daal sàmmal sa digg ak yàlla yow lii rekk a des soññee ka yeetee kay xulewu nit wey na daal nit ñépp xam nañu wépp ay xam wépp yiw koo mu ngoo kub xam-xamam dafa lottu daal koo fexe tere jëf bon mbaa wax bon ma fexe noonoo ka bañ lii xam ko daal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 nun ñépp yal nanu yàlla may mucc njariñ fawwa ngërëm ak pal gudul dañ mukk daal mbokk ak ak jaambur ak di gis buy dem demal buy jekki it ngay ñukk daal kenn réeratul tey ngir ma ñépp ko xam bu wér koo demul dafa jox mbiram saytaane daal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 bul wooti nit bul soññi nit bul xutba nit wéel sa bopp fag waaja daw ni la ñabb daal kenn duutu gis may wax lu dul bopp lëf lu ma deeti wax saa bopp tax xam naa ne daal lu ma deeti wax lu ma deeti def saa bopp tax nit ñi ma gis jëruñooti ti ak coona daal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 na ngay fatlikuk dee fatlikuk mbugal ak layoo te fatliku bis pénc ña fay daje séq la na ngay mooy wax joo xam ni jii du ju am njariñ te dëkk ci jëf joo ni baaxam ga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 am xel mu gàtt wutal ak njëg te jëndi ay ngërëm koy moy te bëgg aljana loolee mu bëgg jomb loo xam ni lii nag jomb na ab dofa koy bëgg ndaxam doxoo te bëgg raw ko ne jëfoo te bëgg am lu ne te bëgg gën ko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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم coona ba wéy na cant gi ñëw na ba wéy na cégg baroot na cant ga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 la tax sunuy mbir yewen nun ñi du jàng lëwal du jàng saaneeka dencig jur baleeni xaran sëriñ bi ñépp la daayee waaye na naka dem ñu neeti yeete ba yee saytaane dellu nu man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 yal na nu sax dàkka ku yiw wu dee si yéem ba dugg fir dew si nimmal dee si yéem la dale fii nu ne ba jàpp àjjana yal na ne képp fii nu nag dem àjjana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 ku nekk yal nay baax kay fekke déwén fawaka am yépp yiw ak mbir muy yewen yal na sunuy xol sax ci guy yëg buttu xoli ñu bañ sax ci xët futtu képp ku bañ yal na tëdd wett te sax ca mbaamu ni wéret ne mottu lu ko nu bañ yéene ci nun yal na ko dal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 ku jëm ci ab junni yam ci tànk tax nga taxaw sab tànk day dal di jee sab junni raw nga gëlëm bul jàpp xam ni moo gën lépp jënd ko lëf kuy jàpp yàlla di jëndes lëf asal du ko am lu nammatee dox sa digg ak yàlla sànni ko te jëm ci yàlla ki gën mboolem lu xel di xalam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 ak lépp te doo xama pay ak fecc wëllëre ak wayaani seex ak ku am ëslëf nga dem gane ko ak bëgg ëddina ak saggan ci laaxira ak fàtte yàlla mu réy mi mat di fàttaliku la tax ña baaxoona baaxit mat na fukki yëfëg juróoma këslëf xarit ndax yàlla séddenu ko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 dootul nangoo jajj dootul def lu jub du ko wax sangam ba fa suturaalal koog bonam yewi ko jajj mooy kuy tàmbali gasub teen ci waxin wi mooy lépp looy tàmbali te àggagul moo tudd ak jajj li tax baa yewi kuy wuutee ka baax bon amaana dee fi yabal nit rekk ngir mere ko yabal bu lëf ruufuwul boo xam ni àndul akas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 ndax na jupp ku xam ña dooni buur ak i baadooloote sax anañu adduna moo mën a nax ndaw ndax na jupp ku xam ña dooni buur ak i baadooloote sax anañu ña daa dawal seeni fas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 ku xam ña daa tëggi junjung woote ñépp di ñëw ak gaaya daa xeebi baa dooloo kaxas anañu moo jaaña mbooloo ya daa wër gàddu seeni fital di sang kay sang tey jii nag ku xam anañu moo jaaña daa dox di wëndeeluy xaree kawasal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 walxiyaasu billahi wala xawla wala quwata illa billahi alxalil asim astaxfirullah alazim wa atubu ilayka ausu billahi min alseytaani alrajim bismillahi arrahmani irrahimi wa sallallahu ala nabiyihi alkarim yow mi nelaw te xamoo say bir na ngay nelawee yow miy nelaw te moo sag muñ na ngay nelawe yow miy nelaw te moo say mbir na ngay nelawe yow miy nalaw te xamoo sag muñ na ngay nelawe yow miy nelaw te xamoo bis penc boo fa layoo dangay yeyam dañu lay yey moo na ngay nelawe yow mii nelaw aka xunnee kay xarante xamoo na ngay doxee gun siraatit moo na ngay nelawe yow mii nelaw guddi jëm waxtu fajar te xamoo naaree ki àjjana foofuy jëm na ngay nelawe yow mii nelaw te sa lollib dund wéy te amoo loo yóbbaloo fa nga jëm moo jaana ngay nelawe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 ku dof bay fexee xam alal jeek am dofal bay fexee xam sëriñ beek a gëm ku dof bay fa bugg jur di boolee ka yar dofal bay fa bugg jur di tàbbal këram ku dof bay fexee def kemam bum gënul dofal bay fexee def laram bum gërëm ku dof bay fexee dem di laajig juram dofal bay fexee dem di dollig juram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 da koy tonte par des du mus sax mbayam tontu mooy paas xarit dëgg jaayal fi sab teeru yow te fa dërëm dellu kon doo gëlëm dërëm yii fa sab teeru ngay seeru ak dërëm yee fa teeru tugal yéppayam la yonnen ba daa digal aw nitam la bambay digal yit asal aw nitam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 xarit bul tamal yow sa bopp la jël te la tàggoo la tee diw la jël xarit bul tamal yow sa bopp la jël te la tàggoo la tee diw la jël kafee kiy ataayaa ki miskit jërul di xaaree kañaanee kaleb cam muñal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 ngor ak diine ak war ma yi jeena tey te yii nag bu lu dul ay desul ku ñëw may ko man te bañ koo lebal li lee di soowoo këre cookaxul lebal yàlla moo gën lebal ab laram dawal lépp luy lëj le ak kuy lëjël أعوذ بالله من الشيطان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 muñal kem li ngay muñ la sa wiiw di day li ngay sàkku ci muñ nga koy làqe mu muñal kem li ngay muñ la sa wiiw di day li ngay sàkku ci muñ nga koy làqe kët dangay sàkku barkeeku yiw ak ngërëm te yii nag muñay seeni ndey bul tawat fa ñuy ruuje tool fa ñuy tibbe sax la dig muñ fi diggante bi raw na bët bu ñuy góoba kay gar ña daa bay di muñ ña ngay reeke fab seeni mbay nag defat bu nee faa ku daa bay na ñëw fab ngaram nga bëggoona am ngar lu yéemoo xarit bu nee faa ku daa jëf na jël payam nga bëggoona am jëf ju kenn dul xebat ku muñ muñ gu rëy faw am pay gu muñal muñ gu rëy ndax nga am say mébét ku jóg jëm ci ab dëkk gis am ngërëm da cay dal daaw wéy njagam def na nit mu ñëy ngir ma jëm nag ci dëkkub njariñ xanaa dëkk boobee nga jëm léegi bu ñuy fay ku nekkub liggéeyam ëllëg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 mbooloo mi ak yéetee ngi nii waajuy nelaw na ko dal xam tey ndax te yeewoo gën nelaw mbooloo ak yéetee ngi nii waajuy nelaw na ko dal xam tey ndax te yeewoo gën nelaw tey yaari gaa seeni mbir mat naa xalam kiy daw lu bon fu mu toll ak ki lu bon di daw kiy daw lu bon ngën jiib murit la bu yéggagul ki lu bon di daw ngeen jib murit la bu daw baraw kiy mus lu am ndog mbaate muy daw yéggagul daka yegg duutul dox di mus lootee ka daw bul daf ba gis wax jii ma wax tax na nga naa yonnen mus loo ka daw laajal lu xew loolee mu daa mus loo ka daw dafa daa xamal xeetam wi waajuy door a fu mu war di aw kuy wut yiw ak kiw yiw di wut kët bokkewul kiw yiw di raasee gën asal kay raasu yiw foo gis murit buy raasu yiw dafa yëggagul dafa yëgg dëggu yiw da koy raasee ka aw na nga kuy door a day raasu yiw ngir nit ku bëgg goj dafay sëgg guy teraw fekk kuy nga xànc koo raw ci ab goj goj nag mooy la ñuy yoor ci ab teen ngir mën caa génne ndox na nga yëg ni nag kuy door a jóg day raasu yiw ngir nit ku bëggub goj dafay sëgg guy te raw kuy jàjj ab teenam te teenam bënnagul bu mu toppandoo kët waaja ab teenam di saw koo xam ni teenam saw na mën naa dal di sol mbubbam ak i dàllam tewi ngir jëm na kaw te ku bën ab teenam ba sol mbubbam di wey bu ko waaja bënnul toppandoo moo gën di ndaw sàggan jigul kuy door a lii maa ko wax yeewul te gas kuy jàjj day néewi nelaw gis naa la ngay dàq ab te seenu la ko kon yow na ngay def ba jot njaxlaf te dàqu la ko naa la ngay dàq ab te seenu la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 sëriñ daame tey jii masak kullalëf ci yonnen bi ak yàlla ak bamba nag li ngay wut ci ñii ñett yàlla nang ko am teew yàlla boo dañ di jiitoo ka bég bu bis ci baayit bu neefaa ko man na jóg ràmm yàlla nang fa rusloo ko jóg bu bari yépp dee wal wal yi ñëw ba kenn desul yàlla na ngay mbër ma mbër yépp wekk te yal nang fa am pay gu gépp pay gu ñépp xaj ndax ku lay sopp jag ku ñuy ñee kanaw yal na lay ñee kanaw sa ndam yal na rëy tey te ëppit ëllëg te foo tollu it yal na ngay jëm kanam di dog mépp ndog tey ku lëf mën la dog te yal nang fi yàggit di jëf yépp yiw lu dee nga dekkal lu baaxul nga fekk sa mbir yal na gën mépp mbir yal na ngay defar ndaw di la biire it mépp mag ku sopp yal naw yiwam ëpp xel ku topp yal nay ku ñuy ñeeka yëg sëriñ Abdu mboolem li wax ci yow teew mag manam yii bayit laa fi teg te kët am naa lu dul yii bayit ma jox la santal te ñaanal ma nag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 faral naa ko it cee ba dootul ñëwit nag sa bopp sa mbir def ci man te def mam murit dëgg buy sab xarit dinaa wax ci yow lëf lu tax ñépp xam ne sam kem amul soow ak penku it ba ngay jàpp xaalis di dëddoo bañ akay sànni ci ga dex ngaraw képp ba ngay wéet akay muñ akay dunde ñax fa yéefar ya boobee nga fam ñépp not ba ngay jàng kay bind ñuy fooka moy fasag wet nga sut mbàkke mboolem ña sut ba ngay jaamu yàlla ka waye te kenn nekkul ak yow nga am say mébét ba ngay xiifa kay mar te dencoo bu réy waxoo kenn say lor nga semmal ñamat balay karce daa wër gannaaw ak kanam te yàqul la ngay def ngaraw am xelit ba ngay damm sag nii te kay toggu ñam ku jóg romb lay nga dib yaaramit ba ñuy naan kay foona kay tuxu di saw fi sag wet nga am lol bu feeñoon nu ba kenn déggatul lëf ci yow déggatoo ci kenn lëf nga am may gu kenn foogulit ba ñuy lii takay maa ngay jàpp yow akay julli boobee nga saf yàlla it bañuy woote ngay julli bañ wuy ji woo bësal mël nga def mbég ca yonnen ba it ku lay toppandoo tey ci lëf moo ko def ndeyaw dooma roomam te dooma samit ku lay toppandoo tee mu dox fee nga dox ba ñëw fii nga ñëw lii rafet moo gënit te kuy ruuja kay bay bu dee toppandoo kafar man ku dof ay mbiram yàqu it def tey lu dul joxla la boppam bu wér te bañ laa defum naw la day alkukat danga dox fa mbëri yépp dox nag te dox fa kenn mus la dox am nga jaajëf jumat danga boole waa àll ak waa kërit faraxuloo te jël seeni ndam lii rafet demoo wàcci saw nit ñu bon alkufar danga dem te fam ñépp yóbbaale fat danga man ci kër man ci ab àll it ku xam-xam ni yaa ëpp ñëw yow ñépp fit danga man ci kër man ci ab àll it ku xam-xam ni yaa ëpp yow ñépp fit kërëg àll ñoo bokk nag yam fi yow loo am doo ca bew doo ca jékki xulit ku dul yow gëtam yaa nga jëm genn wet te yow nag sa bët yaa ngi jëm gépp wet kudul yow dafay may boroomam bëbët bu wér mbaa far may njabootam gëbët nga may yàlla yow bët te may ñépp bët sawet génn tëqul sawet yépp a set kudul yow bu geewet setee gee tilim geewet jotee sa kiit gee jot sawet yépp set yow sawet yépp a jot bégal baarakallahu sam kem amut te noongoogu fawwit di say dof yu rëy fajal yaa di fajkat te yor ay dofit doxal faw diggante ñépp tawat ba kenn dootu gis kuy jaloo tawat na yépp far sedd mbir yépp jub bu kenn ñàkkatiw yiw ba firdawsiit te mboolem ku lay topp nag dee ko wan lu dolli gëm ak rafet njortu te fenkal ci mboolem ku lay jox mbiram te leeral ko leeral barabbam ne it defal gaa yi lay topp kay sopp far ni biddiw wa kiy weer a kiy jant nga far féete nag yow ci suuf ca kaw sa mbir fi waa suusi ak waa kawit te def nuy murit yoo defar yoo gërëm yu lay dimbalee kay bégal faw yit na ngay bég ci nun faw nuy bég ci yow nu far dund ci topp téeméeri at te sun at mu ñëwee ci téeméeri at yoo ab jaamukat jaamu sellal ko yit te dàkkul nu mboolem lu jëm kon ci nun caay tiisa kiy lor tey ak ëllëgit dàkk mooy luy bëgg a ñëw nga fexe ba du ñëw te jàppal nu mboolem lu nuy teggi kon ci may ak yi cant ak jàmm it te leeral te baaxal te neexal wéral sa digg nu nit faw doylul nu te may nug wér way ci loo nuy digal ci saa ngir yàlla ak yon ne nit te bépp jullit def ma mbég cib xolam te dàkkul ma naafeeqa kub yéefarit sama xol na fees ak sa mbég ak sa yëf samay cër na muccit ci loo diglewut li ngay soopa kay tànn nay saxa ci man te naa ciy saxet faw lii laa lu dul yow na may daw te naa koy dawit te naa lay fajal sépp soxlaa kawut yoral xol bi yor cër yor lépp nag yëlëb naa lu dul yow ci man mi mu

ndaxam am murit saa su bëggee lu dul ndigal ak ngërëm dootu benn murit murit dëgg yombul la yombay nga wax ni man ab murit laate doo am murit ku tàggoogul ak soxla kay du murit ku tàggoo ki soxlaa di ngeen ji murit fabal sëb sëriñ teg fi sab xol xalam ba far fàtte say soxla lii dig murit murit buub sëriñ dul tuxoo fib xolam du am soxla yal naa di boobee murit yëgal kët ni duniyaa ak dex te nag ab sëriñ moo di gaalug murit njegam ab sëriñ moo di gaalug murit moyul génn jëm fenn yow kiy murit ku génnul du lab mukk kuy génn lab akay lépp tey yaara yàqug murit tëlëf man la teekat ngalab leb lu dul nga wut sëb sëriñ yow te muñ ak murit ku lëf lu dul sëb sëriñ daal delab teleb jupp farxët sarti murit wutal sëb sëriñ yow te loo ñàkk muñ te loo am fabal jox ko kon ngay murit murit day muñug ñàkk muñ jépp lor ba sangam ba daakul ko luy lor lolay dal ci ak ñàkk mbaalor muñal ba sab sang teggil la ko yow murit ba sab sang teggee sa ñàkk ak sa lor ko lay deeti teg ñàkk kiy lor murit joxal sab sëriñ sag jur ak sab xolit te bul wax lu bul wax lu lay dog murit lu dul maa ngi nii askadi yaa ngi nii bu koy wax bu koy wax lu murit bu teggee gulit nag sa ñàkk ak sa lor ku koy deeti teggeeti tontul murit yabal nit fi sab sang wax loo ko lëf lu dul maa ngi koy sopp kay dug murit bayil dëgg yóbbante lëf sab sëriñ lu dul ak jur bëgga bëgg a def am murit dangay sangloo sab sëriñ saw yaram te boo yëngu tookat mu daw laa murit xamal yow ab sang day sangu nit te doo gis mu sangit ku deewul murit mu kallaf mu deewul ku koy sang mooy te ab sang mooy til lii murit li lee tax ku tudd murit yomba gis li taa gis ku tudd murit tey murit murit dëgg day dee te deewul asal le dee metti metti jotul ak murit amaana nga gis waaju tëb dal di dee te doo gis ku tëb dal def am murit gisal waaye ngi jóg di daw ci murit ba am ay murit kët te kët du murit gisal kii itam di daw ci murit ba dundam ba far jee mu murit ku fas ni ku am ay murit dib murit te fas ni ku ñàkkiy murit du murit xamul la fi yëgul sax li am ak li xew ci murit sax xamul luy murit li lee tax ba saytaane war gaa yi tey yi tënkug murit nag ci am ay murit te sax kuy murit ak kudul am murit te bis lay feeñe yeewul murit bu dee seela yoo fexe jóg di aw seraatit nga xam yow ku doonum murit balaa kenn xeebaate war naa git ba xam lay fasoo xew ci bépp murit murit yépp a ngi mel ni gàncax gu sax te gàncax xamul ak mu jëm kat murit te gàncax amaana mu jóg neex a gis maral dog ko jëkkuk ñoram cay murit amaana nga gis gàncaxit jóg woyof te naataa nga far jot ko waarul murit li ngay mujje yàllaa ko xam moo xamit kanee la muy mujje jàppul murit bàyyil yab nit ak dox di xeebi mbiram amaana nga yab kook matoo ko murit ko tàbbib nawet nag te góoboo ba ngar ba far mànk doo xam la ngay am murit ku déegul lu xam-xam du xam ay mbiram na ngay muslu foo tollu am ndog murit na tuuba kay yeesalug njébbalit di xeebit sa jëf yépp ak sa murit ku xeebul jëfam dal naw ay jëfam ku naw ay jëfam dal di set ci murit sa jëf boo ko dee naw dangaa réere kon ni yàllaa la sàkk ak sa jëf yi murit njagam xam nga tey jii ni yàllaa la jëf bu wér ak sa jëf yi bayil ndam murit ku gis gopp buy naw mbayam moo ka te waxe ji ma waxe yow xalam koo murit ka yor gopp baa nde goppam ba kay bayul lëfte yow yaa di gopp bee murit sëriñ bee la yor moom itam Mustapha ko yor yàlla yor Mustapha nag murit sëriñ baa ngi jébbal ko say mbir bu wér te def kopp sëriñ kon mu def la murit xamal lay mbiram yépp jox lay ngërëm yu dul jeeki barkeeki ngeen ji murit tegal lay lor ak gàcca ak ñépp ndog te yóbbal la yóbbal sa bépp murit nga far jekk-jekkal sa bépp murit nga sellug murit nag ñu sellug murit ba ngay sant ñuy sant ngay bég ñu bég nga mat ab sëriñ yow ñu mat ay murit li lee dig cëriñ nag la lee dig murit lu dul du gennuk cëriñ du murit defarkat bi maa ngeeti ak saatilim defar maate yow mii defar sa xesaw naa te fees ak setal maa ki mbir yaa di géejug murit xesaw moo di xeeñ ak lu luy waral ak tilim te ma far def ma jantum murit gërëm naa la xam naa ne mat ngëb sëriñ bu wér waande yal naa la mat am murit te naa la saf saf sa bépp murit te naa la am am sa bépp murit joxal bépp jullit lu seddub xolam ba mboolem jullit yépp def say murit fabal say murit yépp teg nag ca kaw bu kenn gis ku suufeeti tey am murit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 sëriñ bee matub sang moo gën ku ne te moo doy walafu doy tubaab ku ne mbiram doy na naar ak walaf te doy sëkk góor ak ku ne ku koy sikk nekkul ci suuf ak ci kaw mbiram fes na ni jant tey moo ne ba na suuf ak kaw gox jëfam jëm na kaw aw turam dem fu ne ba ma xënay ngëneel ak njariñ képp nit ba koo gis mu feesal te am nag lu ne bu seeroo ku saggante bon mel ni man mu fab teg te kaw far ko may sag bu ne bu dee ku ñuy ba kay dox di mu nëbbug bonam xëpp ko wiiw wu ne ku ñuy dox di suxuloo ka soowug bonam balaa jekki koo kee kay gëne bu jàppee ku bokkam ya fab sànni fee bu delloo fa bokkam ya moo fay tane ngëneelam yi ñoo daj kajoor bawal te daj penku daj soowu daj wet gune amul genn wet guy ngëneelam néwul ndaxam gaa yi ji waaye gën waaju ne te yàlla naw fanam ak sunuy fan diwey nu far mucc am fan wusut fan wu te yal na xolam sedd faw wit ci nun te far sedd seddit ci mboolem ku ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dem fi ay ma gis képp nit ni cundung ci bàmmeelam ak ay jëfam dama dem fi ay ma gis képp nit ni cundung ci bàmmeelam ak ay jëfam ma xam nag ni koo xam ni lii dig mu jëm bu yeewoo dafay teel a jëm ci mbiram jógal jëm ci say mbir te bul toppandoo ñi booleg tayee nag nga meena ngëlam lu nit fab di yóbbaale bàmmee la koy lor lu dul loola fajtil loram ca ak jur aku nit ku dee doo ko fab di yóbbaale faggul ci sëg ngërëm te mboolem lu nit saytu yàllaa ko fab abal ko te buy dee mu nanguy yëfam liggéeyal ci say yëf te wut cay njariñ lu jar dem ba say yëf te la xoo ca ndam ku xam dëgg loo am balaa jee nga am ca loolee lu dul nam ma tee jee ndaxam ku am dex akuk jajji tey gas bu wér balaa deq baa jéem seerum ndoxam ab deq mooy mel ni ab dafa taaxoon ci nawet bi am deq ku jaaj tey gas bu wér balaa deq baa jéem seerum ndoxam te ab deq nag moo di dunyaa yëgal te gas moo di ak jaamu jaamul te gëm wér ak dund ak wërsëg ak kër gu jag du lëf kët ndareb deq yewwul te xam ku de xam ba xëy jeete bënnul përëj mu dëkkew marag mer di réccu yi jëfam xarit dëgg naanal te gas bënn yow ku def nii bu baa mu bég ci jëfam xarit lépp loo saytu jaamoo ko yow ku def nii bu baa mu bég ci jëfam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 ma réeroon nga xëy may ma xam-xam bu ma soofon nga far def ma géejug xoram gu saf seexal ma jox may meteel gërëm naa la nag def ma ab santkat bu lay sant kay way ci barkeb jabeel samay yëf du jee ndax te say yëf du jee ba ab sang dul jee jaamam du jeel damay sant ngir yaa ma dàkkul lu bon bu wér ak bon mbàkke yow laa fi neel cofeelam ma wan koy ngërëm ku lay wan mbañeelam ma wan koy mbañeel ku lay sopp dundam gajak dee gajak ku bañ bu dee dal dem naari beel naari sax fa te dootoo fa ba faw ku lay sopp dundam gajag dee gajag ku lay bañ bu dee dal di dem naari beel ku dul yow pexeem mag soloom ak mbiram jubul sam pexe jub te yaa nuy fexeel yërëm nooti dolleeti nuy mbég yu rëy yu tooyal sunuy xol te may nun noteel bu sii bawal ak kajoor jolof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 ku lay jiiñatib sang kay naw sa mbir xamal yow ne ab dof la doo benn kët ku bànnee xam ak addunaam di jëf loo ka waxuloo du ab sang kët bu fekkoon sa baay ak ñoo fi gën te moomoo bakkan yow gënoo kenn kët bu fekkoon sa baay ak sa ndey te toppoo bakkan yow nga gën ñépp kët sa baay sa ndey gën te jëppoo bakkan di not faw tërëtil nga dib sangkat bu ab jant soo ngay fanaanee nelaw di neenal sa du ak cangkat ni dell ak ñam ñu naa sang bee ga dof nag banaaxu dangay sankukat ni dell lu baaxul ñu naa sang nga naaxu ngir dof dangay alkukat ni dell ak mooy ak cër bu rëy ak tilim ñu naa sang baa ngi li leb kët ñi lay kow kowee kay siyaaraaka gëm dañoo réere bon gii nga bon rekk kët bu fekkoon ñi ngi gis sa gii nga bon ku jóg teggi lay xam ko kët bakkan joñ la jiital nga far dib laram ñu naa yaade ab sang doo benn kët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 nag pital te fab lépp na jox ko danna ba danna mooy koo xam ni day mën a jam diir rekk jam ko te bul def ba am puutar ak bal ba tax nga fab sag fital naa damay jóg rëbbi ku dul gis lu ko ndel la kiy wal di faj bu téqee du jam lëf lu dul àll ba fabal xol bi fab jur gi fab dàgg ji te fab kër gi ngir yàlla jox sang bi te gëm yàlla gëm sëb sëriñ gëm gure yi te am ak rafet njortu tey wóolu ba rafet njorta ku wóolu yi yaari yëf la ëpp taalu fab te jóg daw dabe melal yow ni waajuy faraasoo katex di wollee ka bay tey rafet njortu ba paraasu mooy jamono yi ñu toll koo xam ne balaa nawet bee ñëw day ji dugubam buy taw fekk mu daal di uh, am jiyam bu tawee mu daal di sax tex nag mooy nekk ba mu taw te door a ji sa dugub walli mooy bu dugub ji saxee ba noppi nga wàññi ko ngir dugub ji mën a màgg loolu lay misaal mm, ci dunduk nit melal yow ne waajuy faraasoo ka tex di walleeka bay tey rafet njortu ba te bul def ku yàkkamti koo xam ni kii bu dee tex di wax kañ bisum te ba awal ngir ma tey jaaba kay waaxu yow di wéy rekk kon lee nga gis dëkk ba te bul geesu bul jadd it bul taxaw te yëggoo moyul dëgg yow gàkk ba yoras lëf te yëggoo di pakkub ku jóg ne day toppi sangam soril pakk ba pakk mooy lu mel ni bant lay doon bu nekk ci aw yoon kuy dox ti xooloo ko mën na laa fil nga daanu sab dox yeex ku yor soxna yoro fas yoraale yi alal te yëggoo na ngay yegge yow dëkk ba fabal lépp jox sab sëriñ yow te wey wayaf toy yi kon lee nga jóg gott bi ku jóg suubu manding bu diisee du dem te manding nga suuboo jógal gott bi ku yëggul du mos kët la kër ga mos dawal yëgg waa ji ba mos nekk ba nekk mooy Grèce la ñuy wooye nekk lu jar dëgg ngay dund yow mii ba dee te foo tollu baa doola bi nangul yow ba am gépp pal nga dee ba kuy jaale naa ay lar bi yàlla bi na ngay dund mbaa sax nga dee léegi far te bul dëkk yow mii fi diggante bi ku baaxul ku naa kay ma ngay dundu fen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 ma jóg man te dee yaale ak sang bi ba dag yépp booloo ni nelaw te dee yaale sax kët balaa saf nga ba mboolem ku doon soowa kay wax selaw li may bëgg dee yaale nag duy dërëm du ay soxna duy fas du ay taaxi kaw du ay toola kiy dàgg duy kër yu du mbooloo mu may dox di santoo ko aw du luy ràpp kay tas du luy jeeka dee du lëf lenn sax far lu dul am la yow te yow bàmba mi wax yow ki gën ku dee fii siyaaree ka mokkoo kanaw lu dul am la am laa ko gën maa ko wax lu far far lu dul ndaw sa saa ko raw ku ndaw sa doyloo ko doo ndaxam ndaw sa dee tey ko ndaw te far wuy gërëm loolu dul jël bu wér yëgal yow ni far woowa moo gën di ndaw ku dikkën fi as ndaw mu jox koy séram te jeebal ko laaxal karaw tëri jot mu tëdd ak moroomum faram ba kookiy séram kon na wax way ca kaw lu far am lu dul ndaw sa loolee du tus lu dul ndaw sa nax laate doy nax yu ndaw ndaxam far wu bon sax du jël ndaw sa gën te ndaw si ma gis ak canam duutu sew la muy bëgg yombul la muy wut sewul ka koy jël du sax gën du siiwey nelaw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 fexeelug murit yow ba am ak murit te def lu dul du faj kët dara ku te bëgg dal ci cëriñ jël ak murit doo ko man kët te doo am dara ku jéggig murit dem di yootug cëriñ dafay ñàkku yiw ñaare amtil dara ku jëm ci cëriñ faw dox ci murit doxal ci murit boo bëggee faj dara lu guy rëy rëyub dàtt ab gif la wan sëriñ dib murit wan bu moomul dara sëriñ day bawoo cig murit dib sëriñ njagam lii amul doonagul kay dara ndaxam bépp lar bopp xolam bëggalëf lu dul jëmmi sangam yayoogul dara ku bëggul lu dul yàlla dëkk képp xolam narus yàlla seetub xolam gis dara ku sab xol setul wi ci yelloo wala pexe kon yàlla yow sax dara wutal ndab ñu dal lay joxu ñam wu doy te ndab lee di ab xol bu bëggul dara ku bëggul lu dul yàlla fees ak njariñ akuk mucc dib lar bu ñàkkul dara damay sàkku ndab aku yiw fi yow ki am ndab aku yiw te bëggoo dara ku dul yow amul ndab amul wenn ñam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 fu may jëm teraanga ki mbég topp ma bu may jóg teraanga ki mbég dal di jóg xam naa man war na ma ku tàggoo ay nag te lëkkoo yiw bu santul boroomam bu wér bett ma ku am wér akuk dund ak mbir mu jag mayam gaa nga koy wax jógal sant ma te yii am naa ko man Baabakar tawat man banaa la yawit nag bama ma te yow cant tawat gën gu wér asal jàpp naa laa yawit jàpp ma tawat maa daw yawit dee ma daw cëkët maa ngi lay muslu yow muslu ma teyit cant laa jàpp def kob xarit tawat dëddu naa laa yawit dëddu ma tawat léegi tàggoo nanum ngir wéyal te bul dellu fi man fatte ma te may ganeete ka dox saa barab te foo man di jubloo te man teggi ma bu sab tànk jam mukk saa genn kër na ngay moytu saa kër manit moytu ma moyul saa kër saa yaram ak samab murit faww nag yow tawat moytu ma laxas naa ab tànk yow canti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 li tax man ma jaaxal samay kem dama demul won ba ñuy dem tefar jiitu leen dañoo jóg ca njël man ma xëy man di muñ bagaalug ndigal ñaw ma war romb leen ñu far mujj may dox di santoo kadab te kenn seenatul ci man waaru leen ku daa santu aw nit di waaxoo ka daw ñu far mujj koy santu ndax yéemu leen sëriñ bii du maasum ña teew ak ñëwey ñi teew ak ñëwey ñépp semmal na leen ku koy wékk mbir am ñu lay wékk mbir du leb loo ko mosa murit sant leen du wax jenn waayam muñal jëm ëllëg da koy dal di jox dik ko ëllëg yeneen dañuy ñee ko kam tey bu ëllëg ñawee ñu far gën ko faañee murit seere leen te sax ñam wu ñuy togg woo xam ni day xaloo yéemu buy bax xesaw dégg leen li nuy am ci kër gi la nuy am ca kër galee koy xaloo gën murit waaxu leen ku jóg soobu am ngir te sëf ndox mu doy aku ñam layam jeenakat lagg leen ku xam ngir xamub dëkk yor yóbbalam na daw nag ba jot ay kemam jiitu leen أعوذ بالله a الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم ma jóg man liggéeyal Sëriñ Bamba liggéeyal boroomam baam lii mu am ma jóg man liggéeyal sëriñ Bàmba mi liggéeyal boroomam baam lii mu am bañuy kër këree kay xare kay wasal ma ngay jaamu yàlla kaway yonnanam ba ñuy bëggi dongoo ka wootek cëriñ ma ngay bëgg ka sellal jëfam ba ñuy fonk juddoo ka fagguy alal ma ngay fonk diine ka faggu bi yaram ba ñuy denc jurgee ka aayee ka nay ma ngay denc téere ka dëddug juram ba ñuy daw di dab ëddunaa kay kobas ma ngay daw di dab yàlla daala ngërëm ba ñuy xalxalee kay jamaalee ka jam ma ngay diira kay jam ngërëm jam na ndam ba ñuy taali jàngoo kawal ma ngay sos ci suufuk murit cey mbiram ba ñuy xambu kéefër di xambuk cëriñ ma ngay xambu taalu boroomam diggam ku daa taalakub taalamit fay na tey kamaj bamba daa lay bérex ak ñoñam te yal nay bérex nuy bérex muy bérex nu teg cey faw koo gisi wedam nu déggoo juboo am nga xoram te gudd fan am lu kenn mës am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ngërëm gaa ngi fi nun ku bëggul dul dem na jóg ñaani paas saxaaru ngërëm gaa ngi nii tey fi nun ku bëggul lu dul dem na jóg ñaani paas te mboolem ku duggul bu déqee ba wéy nga rus sonnu am gàcce nan ñaani paas di saggan ba muy dem nga jóg nag di dox te doo yegg ay la nan ñaani paas te jóg léegi daw dugg moo gën di nekk ba muy de ngay yuuxu nan ñaani paas di yuuxoo kawakkaaju muy daw di wey dotaarum mu kallaf jógal ñaani paas xol ak jur akuk aw ndigal faw nag yëgal yow nii yatt ngay ñaani paas te doo tabbi mukkit saxaarug ngërëm te jàppoo bu wér yat yi paas ku fab xol fa bug jur fa bug aw ndigal joxub sang waatal ne doo ñàkk paas cofeel ak rafet njor takug wóolu it ku fa bi yett yi jox ko am ngën ji paas ma faraw wax nag luy saxaarug ngërëm ba dootoo ko réere ti doo réere paas saxaarug ngërëm moo di kët bamba mi ne cas jox ko looloo di paas te bambaa ngi nii di yab aw nitam njegam bëgg nga raw jox ko paas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 bu cër yépp gàntoo defas lëf jafe defas lëf bu yombul jafe jógal farlu ngir yaa ngi ci bu lolli yow teeb lolli buy wey amus lëf jafe njëgam réere nga bu lolli lollee ngi nii wéer ak dund ak doole lollee jafe ku sab lool li ñëw nag ba say yëfu ni xos la gën ngay ku yombul kumaasam jafe jëfal guddi jëf bëccëg ak sépp saa ba ko seeru naa kii jëfam yee jafe ku def nii ci sab li doo jee lëlëf bu nooree te doo xaare yeewoo jafe bu dul kon nga nelaw koo fu gis ma ngay farlu ngir xam ni lee jëf jafe ku jëm cib ja tey romb xaalis di wey bu yeggee di gis yëf ya teg njëg bu nit nee lasar ñépp naa dootu jóg mu xemmee ma jóg jëf te jóg jëf jafe xarit dëgg ngooral ci xaalis bi yow te kat léegi seeru dërëm sax jafe ngoor mooy looy ëmb te xajul ci say loxo ngay ngay fegat ngir lépp mën na ne ci biir euh, li xarit dëgg ngooral ci xaalis bi yow te kat léegi dërëm sax jafe ngirug mag akug ràgg ak dee ngi ñëw bu ñuy yekk si defu lëfu bon bon jafe defal yàlla lëf bu mujjee jafe amas lëf ci yàllaati gën koo jafe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 ku muñ yàlla far ub sa buntub tawat te ubbil la buntub yiw ak suuy bu neexee sunub sang nun leenu ree te mboolem ñu nuy noonu it dëkke wooy ku nuy rëbba kay wut asal doonu gis ku dul jóg fi sangam ku koy rëbbu sooy fa yonnen ba jaaroon ba wéy ak ñoñam la bambay doxoon nun sunuy xol na tooy bu soobee ka bindoon aras leenu jóg te jag faw ànd ak xol yu nooy ñeney dox di reetaan kay wax lu bon dañuy mujj bon bay foraatoo ka yooy sunuy xol na sedd sunuy soppe bég ku nuy doore sunuy mbay du gooy ku xaaru xaddi ku bañ du bég xolam dootu sedd te taalam du nooy ñaayi dal du nun kay ña lottit du nun ak lotta ngay jëm ca ñay fooka fuuy sëriñ baa ngi yor nguuram ak xam-xamam di jox ñii ka xaññee ka jubloo ka juuy te nun yal na jóg jublu noo kiy mayam te joxu nuy ngërëm faw dàkkul nu jooy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ndaxam gaa yi may siisa kay dox di bañ li ñuy bañ ci man mi du man mi ko def ndaxam gaa yi may siisa kay dox di bañ li ñuy bañ ci man mi du mi ko def li ñuy bañ sëriñ bee ko fab def ci man ndeman lottu naa sax ci def lenn lëf sëriñ bee ni cas ay yëfam def ci man yëfam rekk laa yor ndeman aw ma yëf dañuy gas ngirum ndox di bay ngir dugub mu jox mag dex ak ràcc mbég par kosif ràcc mooy bu ñu toggee laax te mu tàng noonu ñuy def ko yëkkati ci kudd gi ngir mu sedd loolu moo tudd ràcc dañuy jàng xam-xam di wut ay dërëm mu jox may dërëm sol ma xam-xam ba faf dañuy wut ngorooki gorooki jabar mu yët may ngorooki jabar lii du kaf dañuy jënd akay jur mu ñëw far ne cas lañuy jur akay jënd jébbal ma tef bileb dànn yombul te moo dàqa jam kemam yépp buy téq cin dal di saf bu dee téq lor dem njariñ dal di ñëw ngërëm yegg si xol sedd kii baaxi jëf du mooy ay moroomam te nag am xelam du daj mooy boroomam ragal naa suruf dafay dimbulee kay fa bee kay jariñ di may ñépp yar di diglee ka jëf dafay wattu boppam di wattuy kemam du fiiree ka jànnee du wan kenn laf mooy doole auusu billaahi min asseytaani rajiimi bismillaahi rahmaani rahiimi wa sallallaahu alaa nabiihi lkariim rëyuug bon du tee ma jóg jëm ci yow nda yow dong laa am caab jublukaay réyug bon du tee man ma jóg jëm ci yow ndeew dong laa am ceeb jublukaay barib tër du tee kay ma jóg jëm ci dex di yaakaare set nag bëggën jépp waay amul gàkk boo xam ni mën naa waral ma jóg mooy la ngir yaa di saa póotukaay bu may réer akay tëx akay bon jëfit samay njortu ñëwul ci yow ngeen ji baay ñi seeni jëf yaa ko te yaa gën ci ñoomi nday ak ay ndijaay danga am ku man te man oo man ak ku dul yow faral def ma ab wuutukaay te yaatal ma bënnal ma may ngën ji dex gudul ngi sa kay fer akay jeeka daay ŋees mooy fu ndox nekkan ba yàgg mu dugg ci suuf ba jeex loolu la ñuy wooyee ŋees fer itam mooy mu dem ba ndox nekkatu fa nga gis fa ndox ma nekkan di def ay fett fett daay nag mooy mu dem ba mu xamante ni day far mu mel ndox mosu nekk lu may ay ay der rek des fa te yaatal ma bënnal ma may ngën ji dex gudul ngi sa fer akay jeeka te feesal ma ak kee gu gën kee gu saf saf ñépp may fab di jaay kee moo di wurus ak xaalis ba mboolem ku ñuy ñee kaxal seeta ñee ñu far bokk nuy ñee ci bépp jataay ku ñuy topp ñeenu ka cay topp ñee ñi ni topp nuy ëpp ñéppi nga ñaay fabal lii nu wax may nu faw ngërëm ngirug baaxe kug tab ku lay roy du aay tabeekub yarak yërmandeekug lewet nga fab xeexe yow mii ba not jépp waay li lee ma far dëddu ndaw dëddu mag te jëm nag ci yow def la ab jublukaay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 ku mus yàlla aw nit ak du saf te xol ku saf asal yëggu la ku mus yàlla munuñ àddunaa kiy mbégam te dootoo ko soppit ngir gent la xarit lépp tee nga mus dee ko daw akay mus lu ngir loola saytaane la na ngay sell sellal sa xol set welas nga far dëddu dunyaa te wey noonu la ku lay war faral war ko jëkkug waram te duniyaa waram yi ku déegul ci la faral dëddu far muñ bu wér ngir ku ñuy wutal lay muñub cox bu wér war na la ku feesal sa biir ak cox ak am si bet bu ceeb ak cere yi lay jógee teg la cox mooy bu ñuy waaj a defar cere dindi gi ñuy diggan dindi la ca ñuulan ca kaw ba mën a nekk cere loolu moo tudd cox sibet mooy bu ñu bu ñu ko soxee ba noppi jël ko def ci ndox mi raxas ko ba mu set ngir mën koo wal loolu mooy sibet mu ne ku ca duy sa biir ba mu fees ci ab cox ak am sibet ceeb ak cere lay bu jógee dalay teggi cere lay nag mooy cere joo xam ne dañ koy bësee diw ñor def ca yeneeni mbir mu ne ku ca duy sa xol ba mu fees bu ak cere lay lay jógee dalay dalay teggi boo ko duyee ci cox ak sibet ku feesal sa biir ak cox ak am sibet bu ceeb ak cerey lay jógee teg la ku duy sab xol ak xubbu dunyaa ki yëf di woo yàlla kon nganam jomb ku duy sab xol ak bëgg dunyaa ki yëf di yoo yàlla nag kon nganam jomb la ku dul dox di xemmee ma dul alal daalaku nit ndaxam gumbala ku jóg ngir wutu nit asal bokkul ku jóg ngir gadaw nit lile bu la di am am lu as ndiine ngir bëggu nit ak gu jur li léeg mooy ak sànku la royal yow ña daana bu ku yiw te feeñu ngir bëgg kenn topp la murit seetu baa ngi fabal seetu nag ba xam taq ngas mbon mbonam taqu la fobal dal di seetoo te loo gis faxas njëgam bëgg nga buur ñoñam sopp la defal lépp luy tax ñu naa yaa fi gën te daw lépp luy tax ñu naa baaxu la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم tawaat naa samag bon ci yow mi fajal nitu gu bon jógal faj ma yaa faj ku tawat naa samag bon ci yow mi fajal nitu gu bon jógal faj ma yaa faj ku fajal dëgg mboolem samay ragg tey ba mboolem samay ragg wér wér gu ne damay bon bëggën fee bonit du tee yow lu ne lu dee faame bet maa ngi koy seeru ngir danga def ko am ngor te gën waaju ne ña daa jàpp mbooloo jubal seeni mbir ci saa boo fatee won ñu mel gone li may soo fa kay def ku suufee ka bon du tee kët ma yaakaara am yiw ne te xam naa ne lar yépp man ñoo ma gën te saa yooya booyit ma gën lar bu te xëy jiitu gën ñépp jumbul ndaxam ci man ndax te saa sang bee gën bu ne lafañ sax bu géewul te war gaalamit dafay dal jot ñépp far raw ku ne ku baaxul te sab sang gën ñépp yit saxal cant kët war ci yow war gune la bon dëgg sang ak laram bokk bon ko bon sangamit bon mu bon bon gune la gën dëgg sang ak laram bokk gën ku gën sangamit gën mu gën gën gune te nun nag sunub sang gën ñépp kët nu nit yal na nuy bokk gën lar bu fajal noo fajal raggi xol ak yaram nu wér cing far ëpp ak wér ku ne auusu billaahi min asseytaani rajiimi bismillaahi rahmaani rahiimi wa sallallaahu alaa nabiihil kariim sëriñ bi muñ lu dul yow mi te fàtte ma lii lii koo ko may du loru muñ lu dul yow mi sa jëmm ji may mali lii kooka may du loru koo xam ni jàppam nga duniyaa jépp jox ko mu yoru te xam ni jëpp la may gi jox ko mu loru murid day fajal ab sëriñ ay loram sëriñ day fajal ab murid ay loram murid day fajal ab sëriñ ay loram sëriñ day fajal ab murid ay loram ku fab lar yanul la yanul koy loram ku jóg faj semer ey jógal faj meram ku gàddaaye suufam ba ñëw nag fi yow fajal koy loram yépp gàdduy mbiram murit boo fu gan la ñeelub sëriñ di yar tey teral tey seral ab xolam bu baaxul muñal sab na tookon bu wér te koy fexe génne ngir ak bonam gisal dëgg saytaane bon gii mu bon te yàllaa koy baaka seet ak yewit dëgg bul def ku baaxul nga fab ni xër ci ab àll lii kat du ndam xamal yow ni lay nga far mel ni dex ki fees ak yiw akaay te mëkkul tilim melal dëgg nig dex te mboolem ku ñëw fi yow ngay gërëm buy demit ngay gërëm te bul dàq bul bot de bul yàq nit na ngay maandu bul lor ku ñëw mbaa dem ku jógi ñëw fi yow jox ko àqam mu dem bu dëddee fi yow dem bayil ab deram ku ñëw may ko ab yar te sakkuy mbégam te buy faddu say gët nga fàttewu turam faddu mooy bu ko fi yow dem ku ñëw may ko ab yar te sàkkuy mbégam te buy faab du say gët nga fàttewu turam na ngay muuñ a kay ràcc sab xar kanam te bul defu ku bon kuy rasub xar kanam te bul reeke bég bay niroog ab dofit bari dee ak i mbég du nit xoram ndaxam mépp mbir digg doomoo ca gën sëkk ëppal ku ne ku moyam royal na ci suuf nga gis ñépp war di def ay te doo dégg bis njàmbatam dañuy jàpp xaalis di jàppi tojal di def nag ci biiram te déggoo ñi baax ñi bon ñépp a ngi toŋ ci kaw di jëf yiw ay mu taqoo ñi ngi def ci biiram lu baax lu bon te déggoo mu naa ëskayit mbaate cam ku bëggul lu dul raw ña teew ak ñi wey te raw ñiy fasoo ñëw na sàmmi cëram te fàttey te woo diggante ma kub sàngam ak ay jëfam te dëkk ak rafet njor takuk aw ndigal ak ku tuub ak ku ci gëm di noppee ka farloo ka yéemu mu tey jàpp ak njaamuram bu guddee mu jóg tey xalaatug moyam te naa yàlla moo tee nga noo far di waaroo ka xam lee xam di la biire koo jes te bëggu njegam man nga lii yow defal boo mënul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 gërëm naa ko gëm naa ko it sant ko ngir moo ma jox man lu saa xel dajul pal dafay say du ndaxam dag budul dox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 ma jóg feede lig tuuba kuk cant man ku far dog say kem farul sant kay ma jóg feede lig tuuba kuk man ku far dog bu say kem sant kay gërëm yàlla ak sant bamba ma war amul kenn koo xam ni ñeenaa ko tey dama dikk feg dex gu suuxal ñu rëy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 a def ndox ak ñam akub sant far fas te marhaban nii la kay te def kom ndox ak ñam akub sant far aku fas te war marhaban nii la kay أعوذ بالله من baa ngi nii jox na lay yëfu yu doy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 nde tey ji nga reggee amoo wenn lay lu dul fab sa gob bii di doomal di sol te ak dund moo dib nawet lee mu wéy ko am sawat ko am sawat ku am sab nawet nag defar loo ka bay bu nooree nga ree kon te bég mbég mu rëy ku sanniw sasam fee te sayam bu dikkee fi yow mi bayal bul koroy te koo kët am na aw sas wuréy wudul jeete diiwul wayal gépp way na say ittéréy yow te sag farlu sax lu dul lii du may kenn ndambaate way na say ittéréy yow te sag farlu sax lu dul lii du may kenn ndambaate way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 am denc nag mooy gastu jal lay tere na ngay jàjja kay ante bul gas di fesag wet ku koy def du ndox asal te kuy denc ak jur ma ngay gas di jal na ngay farlu ci gas te loo gas anal na ngay gas te gas fabal génn yow lu ñëw fab ko joxe sëriñ far mu jël sëriñ moo di am cee boloo tex mu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 njëgam bëgg nga sab sang seeyal ba jee mu am la nga am ko nga naanit mu naan ku siiyul ba jeex tàkk sak caf ka des ku sak caf ka des tuuti doonee xanaan murit dëgg seeyal ba jee tàkk yow nga dem ndox di suukar ba par nee xanaan te sab sang kay doo ko saf mukk yow te seeyoo ba dem ndox mu yëngal la naan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 mosal nay nitam ñam wu gën wépp ñam ba moo tax ña daa dem fa buntam ba faam magum bamba moo gis ma ngaa ku magam gonek bamba goo gis ma ngaa ki goneem njëgam dangay topp toppal ma kii ku def lëf dul topp kii yàqireem dofay sak ko jëb sangu mooy bamba mi te koo tos kareem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 bu ñépp dee daw di jëm ci teen kay wuti ndox fëxal te daw wuti baag a goj bu wér sog a dem bu ñépp dee daw di jëm ci teen kay wuti ndox fëxal te daw wuti baag a goj bu wér sog a dem kon boo demee dal di duy say ndab duyal ku la saf te doo fa jekki xuloo kay wax yu ñàkk xoram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 ku bëgg lool di ko moy nay moy lu yàlla bëggul ku bëgg yiw di ko dal nay dal ndigal te jubal yow mii di boqi gilin tey taali daa yaka wal sa bopp man xoddinaa mboolem li war sama kër gilin mooy matt gu ñu dugal ci taal mu tàkk ba yàññ loolu moom la ñuy wooyee gilin yow mii di boqi gilim tey taali kawal ka wal sa bopp man xoddinaa mboolem li wër sama kër sama samaw nit ak sama kër ak man bu yàlla ya boo lor mooy nu ngir dex yaatoo kuk mbayee fa nu sama samaw nit ak sama kër ak man bu yàlla ya boo lor mooy nu ngir dex yaatoo kuk mbayee fa wër waxtaana yàlla ki gaayam yiwu nit masa am xamal ni kët ca la tukkee yow murit bi xamal waxtaana yàlla gaayam yiwu nit masa am xamal ni kët ca la tukkee yow murit bi xamal waxtaane duniyaa ki gaayam bon gu nit masa am xamal ni kët ca la tukkee yow murit bi yëgal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 firdawsi mi fees ak i wurus ak boo jaamul yàlla ngir jëmam ja jaamu ko ngir firdawsi mi fees ak i taaxi wurus ak te fees ak i ak tànnee fi jongama yooyu yaram ya day leere nii seetoo ki cant ki weer te fees ak i cant ak tànnee fi jongama yooyu yaram ya day nii seetoo ki jant ki weer ku làq soxna yu mel nii dox fi junni di wéy te bis bu nekk ñu gën faataaru fop patikaar ngay dolli ku ngóor a yow foo tollu mel ni ki gan ñuy dolli ku njongamaa ku xayli mataxaar sa benn lal dana day foofee ni liy dale fii ba jàpp nag asamaa was yàlla si niru mbaar nga toog ca kaw lal ya yol yay dox di daw ci ngay naane ko gi wurus foo toll gis lu waar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 sàmmal sa lépp te foo dul dolli koo fa xëy koo gis mu wax lu dul wax ji dalaa nara war ngir ma ngi bu fa jóg naa xawma ngir ma ba tey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم wax fi Amadu kumbay wax ju koy taxaraw seytaane ak bakkan ak mboolem lu dee ragal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 nëbbul te dox di sikkal ay sëriñ ak i ngërëm bul jàpp mukki sëriñ ak seeni ngir di bonal sëriñ ca ak seeni ngir ak seenu nit defaral tey fonk tey suturaal kon yàlla fab la gënal xas te mukk te mboolem waaju jóg di la tuubal te fayu yow kon yàlla far la fayul lii moo di saafara naanal kon nga ni pelang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 sun bokk yaa ngi fi sëgiina ku nuy saraxal nun gaa yi lay dund nan jóg léegi sàkku yóbbal sun bokk yaa ngi fi sëgiina ku nuy saraxal dun dégg dun gis te am ay gët du tax nit a gis koy gis te doo waaru kookee kët gëtam ya kër yaa ngi sëg yaa ngi lii koo ni gis na ko tey soxlaati lëf lu tutub yóbbal sa xel bariwul way man te way man te woy man gaa yi réer ak yaa ngi lee nuy booyal te lii waxul noo ngi di saggan di sakkuy teelu beeki alal ba dee gi xëy si nu ay nan tuubi lii deful te bët bu sébbee ku am am xel dangay baya bay bu dee fi ay mbay pexem ku bayul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 ku dee ba deeti ko sang ak waaja yóbbu këram nga dégg soxna ya jooyoo ku nuy xala jël mboolem njabootam nga naa moonun fu nuy xala jëm wala réew yi wéy ko mat fasal mboolem njabootam nga naa moonun fu nuy xala jëm wala réew yi wéy di wéy yàllaa ko mat di fasal subhaana rabbika rabbil izzati ammaa wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin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 bal bil bushaaraati mimman maa lahu saani bi jaahi waasitati il marjuwi rahmatihi xadiimi nuuril baraaya xayra hadnaani halay aska salaatil hayyi mursilihi bilaali wasabi man saddu anil faani nihma rasuulu wa nihmal aalu kulluhumoo nihma sihaabu wa biisal kaafirul jaani bihim wa bi cheikhi abxi xayra maxfiratin wa rahmatin wa sawaabin kulla azmaani bihim aruumu xada xaaji huna wa gadan bihim xaniitu han ixwaani wa awtaani hani jasaahum ilaahul xarsi xayra jazaa yafuuqu kulla jazaa xayrin bi ixsaani habli qusuuran wa aswaajan mutahharatan hunaa wa hannaa bilaa shakkin wa nuqsaani waxud ilayya mun addaarayni qawdaridan jamiihahaa wakfinii waswaasa saytaani yasir lanaa xayran iswaanin hunaa wa gadan wa xayra duurin wa xilmaanin wa ridwaani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن yonen ba seeni ba seeni bakkan seeni jur raw nañu ñàkk ak dee si ñoo def lu wérul lu rafet ñoo am lu wér lu rafet ñoo nangu nangu nawet ñoo war saxaari ndigal njëbbal gu wér rekk wér moo am njariñ ku ko def raw lépp loo bañ te jot loo bëgg jag te jagal ñi léegi bafungu ñi léegi waaxu ñi wari fas murit ya dugg gaalu cant benn fëxal ñi lee ngi rootaani ñee ngi jaj ñee di nasal murit ya faf soobu gee jug mbég balab di labal ñi lee ngi arool ak aajaroo makina murit ya faf xëy ni rapp ak yàlla jàpp ko jël ñi lee bay ñii ngi jaayaatoo kasakku alal murit ya xëy junni junni ak palipal ñi lee ngi fu ne kay laaj yoon ak i sil murit ya ni ca dëkkub ndam cëpp feetal jam lépp faf lare lépp ak ñépp fenke ca kaw raw seeni kem seeni kem xëy ngéejulee na dawal kalanda dal du murit du sang moo di ka faf ëpp murit te ab sang cey la ko dal nun ñépp yàlla nanu lii mooy faw mooy gu rafet tabarka dal nu ci kaw bopp ak lu dal sunu xel ku ànd akuk dex lu muy ñaaneeti ndox ak awut boob jant fenkee lu ñuy niit ak lu dee si ragal أعوذ بالله من dawal baraw ñi lay yuuxoo kasoo wa te warab koy xaj di baw nay yokku xel rewagul dawal baraw ñi yuuxoo kasoo wa kanaw te warab bu koy xaj di baw nay yokku xel rewagul aw rab nee meŋ dootoo seeru xaj bu ko baw ku dee fi yéema kanaw kookee asal rewagul marax bu maasee ñu naa bi diw bu leera nga nee weerit bu feqee ñu naa leeram gi ëpp na xel te xam ni jant bu fenkee kenn du yéema ka naw ku dee fi yéema ka naw asal rëwagul sayaana ngi dégge ngi ab teena ngi dexe ngi te géeja ëpp leenum ndox xarit xalamal teewul ku nekk fasay kem ngay manee amu ku am fasay kemu tur saw ŋàññi rot na asal gasal di wey yawte bul geesooti jal ba nga gas kuy gas di geesub jalam lay ngën ji ndam du ko jël te jal bu rëy sax du ndam xëy bënn rekk di ndam loo rëy rëyub jal te bënnoo ndam demul dikkagul gasal te bay bala am ndam lu kenn amul sa jajji bënn sa toolit ñor nga mucc musal sëriñ bi yàlla na nu may ay jajjikat yu sawar te may nu nuy jajjloo kay jajja kay rafetal te yàlla na yokk sunu i xiiwal te yokk nu gëm te dolli nu ite may nug way ci topp ndigal te yàlla na fab jépp lor jox faw gaayanu moy te jox nu faw ngëneel ak mbég mu kenn amagul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 njegam bëgg nga yow sag murit jag te wér moyul marsandiis ak jigéen ak pexeem moyul marsandiis ak jigéen ak pexeem te bul sax ay waxam mbaa tereem ku dul moytu yi yatt kay daw bu wér akay muslu woona asaltus kareem te kët yett yi ñoo di waŋ dañuy muusu itteem ak kuk taalubeem te ñoo di ak max ba tey ci murit te lii doy na mboolem murit yépp a saam ku bëggul lu dul yàlla ak raw lu bon na def yi bayit cib xolam ak jibaam murit dëgg day sàmm cër sàmm xol du xoolee ka dem fiw jigéen nit ne kaam ku sàmmi cëram yépp sàmmub xolam du gis jenn lor ndax te génnul sangeem ku jóg tàbbi dex war saxaarug ndoxam gu wér doo ko gis labbu génnul pëkéem murit boo fu gis nag pëkéemay ndigal bu cay jóg ni can ndax dexuk alkuteem ku génnul ndigal nag du gis ak mbugal ku xam aw kaawloo ko ay fereem waxal nag sa bopp ak sa waa bu wér ñu daw marsandiis ak jigéen ak pexeem ku am njëg na jëndi ko ñàkkit na muñ ba am lépp moo gën di xoolee ka yéem te mu dem kët di xoolee ka yéem leblab ni meŋ pexeem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 wajal mahabbataka fiya fa inna masiratakum ilayya wajtahidu fi talabil jannati wa kun aysan min al xalqi fa innahu laysa fi aydihim shay'un wa dum ala tahajjudi fa inna nasrata maha xiyaami layli ngi silmaxaa ngi gàddu seeni fetal di téq kay moya kay jam jàpp rekk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 te yaa yor cërub gaa yi yi bon faral jox ma jox ñépp jox ñii fi man du lëf tax nu jóg ñëw fi yow kët lu dul sa yërmaande yërmaande lan seenu nun dangaa bay dëgg say dàgga yow nu ñëw wër la nag kapp def say sagan te noo ngi di yalwaana kay wut ci yow wér ak mucc ak barke ak gudd fan te boone balaa kenn am lëf ci man dafay mel ni man bun yeboo ñibbi kon nde yow doomi nit dootu mel nii nga mel te giñ naa ni wax ji sore naa ki fen waxal nag ci mbas mi sa nit ñaa ngi jee tinul ñépp yow boo tinoo yàlla tin te nit ñépp a ngi yox yoxe kay ragal jógal ràmmu mbaagam yi dem nit ñi bon bu ab sàmm ne cell jur gépp jee bu jur gépp jeexee lu muy samm kon ba nuy dëddu kër baay ak yi di ñëw wutug mucc a tax mbaa lu nuy wursi kon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 nit ñi nga gis jëruñoo waxal jëruñoo defal loo mën def yow dee ko def ngir yàlla daal nit ñi nga gis jëruñoo waxal jëruñoo defal loo mën di def yow dee ko def ngir yàlla daal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 koy bañ ndigal saytaane moo saytuy mbiram saytaane nag ku saytu mat ngay wattu daal lii tax dawal lii tax moyul lii tax bayil ñépp ak lañuy def tey fexe raw faw daal ñaaxal sa bopp képp koo gis muy sawar tey daw lu dul sab sang wax ji gëm ko daal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 garab gu mel ma wax doo gis ku koy baati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ku sa wujjiwu tooba teex ko ca lépp ku sa wujjiwu tooba cant ga teggi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 te bul foyye mukkuk dund ngir dund yomb la na ngay fatlikuk dee fatlikuk mbugal ak layoo te fatliku bis pénc ak ñafay daje séq la na ngay mooy wax joo xam ni jiidu am njariñ te dëkk ci jëf joo ni baaxam ga bir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 du mën a am na nga ko xam te yàlla kët mën na lu ne waaye du tax mu def lu ne ngir na dëkk fu wutal ko na mu ca dëkk bu nit soobum ngërëm te taxawul dana ca dem li lee ding ndogalam te kenn du din ding ndogalam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 ñaq ak joxeb xolakuk jur yatti yi waraloon mboolem sunuy mbir yéwén tuubaa ta jaad ci nun di sant faw ka dem tuubaa ka tuuba nu war nun ñépp yal nanu koy def ndax ñu boole nu tin sëriñ bi yal nanu dundal am ngërëm te juboo faw ak sëriñ Mustapha doomam ji nekk fi nun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 yal na nu sax dàkka ku yiw wu dee si yéem ba dugg fir dew si ni mal dee si yéem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 ab dig moo di fi dégg yem aw dig moo di ku fa nga am yem ak fa sa tool yem ku nekk yal nay baax kay fekke déwén fawaka am yépp yiw ak mbir muy yewen yal na sunuy xol sax ci guy buttu xoli ñu bañ sax ci xët futtu képp ku bañ yal na tëdd wett te sax ca mbaamu ni weret ne mottu lu ko nu bañ yéene ci nun yal na ko dal dal guy waral xelam ni fër bañ a dal kasa ku yiw te gëni soppe gëni bañ yaa nanu may lu gëni soppe gëni bañ gën seeni jëf gën seeni yéene foppu gënal nu ëmb ya ñu ëmb yépp mboolem li yàlla bind yal nañu nu ñee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 ci waxin wi mooy lépp looy tàmbali te àggagul moo tudd ak jàjj li tax baa yewi kuy wuutee ka baaxe bon amaana dee fi yabal nit rekk ngir mere yabal bu lëf ruufuwul boo xam ni àndul akas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 kuy gis bu koy gumba nammee yet werante mu far ba seeni tum dal di wey ñuy réer akay alaku ab tum mooy bant bi gumba di yor ñu di ko ca woma sëriñ bi ñam wii mu yor lay sàkku ndab lu ko def te wut na wut ndab lu ñam wii yàlla dem gisu ko te donte jox nga ko junni junni it du waral mu jox la ñam wii te nee woo wett far bàyyi ko lu dul ni wett ni dallu nepp rekk wuñi su mee ko sol la laa mos ñam wi dégg nga ko la bam ba bëgg ci boppam lépp ak ci ñoñam ak ñépp na ko am nuy teewe santale ko danoo mënul lëf nde bëggu baax a tax nu bawoo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 yow miy nelaw te xamoo bis penc boo fa layoo dangay yeyam dañu lay yey moo na ngay nelawe yow miy nelaw ak a xunnee kay xaran te xamoo na gun siraatit moo na ngay nelawe yow miy nelaw guddi jëm waxtu fajar te xamoo naaree ki àjjana foofuy jëm na ngay nelawe yow miy nelaw te sa lollib dund wey te amoo loo yóbbaloo fa jëm moo jaana ngay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 ku dof bay fexee xam alal jeeka am dofal bay fexee xam sëriñ beeka gëm ku dof bay fa bugg jur di boolee ka yar dofal bay fa bugg jur di tàbbal këram ku dof bay fexee def kemam bum gënul dofal bay fexe def laram bum gërëm ku dof bay fexee dem di laajig juram dofal bay fexee dem di dollig juram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 da koy tonte par def du sax mbayam tontu mooy paas xarit dëgg jaayal fi sab teeru yow te fas dërëm dellu kon doo dërëm yii fa sab teeru ngay seeru ak dërëm yee fa teeru tugal yéppayam la yonnen ba yit daa digal aw nitam la bambay digal yit asal aw nitam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 xarit bul tamal yow sa bopp la jël te la tàggoo la tee diw la tamal yow sa bopp la jël te loo man la tàggoo la tee diw la jël miskit jërul di xaaree ka ñaanee kaleb muñal njagam am nga naanal njagam nag amoo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 muñal kem li ngay muñ la saw yiw di day li ngay sàkku ci muñ nga koy làqe kët muñal kem li ngay muñ la saw yiw di day li ngay sàkku ci muñ nga ko da làqe kët dangay sàkku barkeeku yiw ak ngërëm te yii nag muñay seeni ndey bul tawat fa ñuy ruuje tool ak fa ñuy tibbe sax la dig muñ fi diggante bi raw na bët bu ñuy góoba kay gar ña daa bay di muñ ña ngay reeke fab seeni mbay nag di fat bu nee faaku daa bay na ñëw fab ngaram nga bëggoon a am ngar lu yéemoo xarit bu nee faaku daa jëf na jël payam nga bëggoon a am jëf ju kenn dul xebat ku muñ muñ gu rëy faw am pay gu rëy muñal muñ gu rëy ndax nga am say mébét ku jóg jëm ci ab dëkk gis am ngërëm da cay dal daaw wéy njagam def na nit mu ñëy ngir ma jëm nag ci dëkkub njariñ xanaa dëkk boobee nga jëm léegi it fay ku nekkub liggéeyam ëllëg ñu ñee gaaya daa muñ lu diis ak lorit te loo man di gis ci lor ak tiisi xol bu ñuy yuuxu ngay sant lii jar koyit bu ñuy yuuxu ëllëg ña daa dëkke muñ ci dunyaa nga firdaw si lii xam koyit أعوذ بالله من الشيطان mbooloo mi ak yéetee ngi nii waajuy nelaw na ko dal di xam tey ndax te yeewoo gën nelaw mbooloo mi ak yéetee ngi nii waajuy nelaw na ko dal di xam tey ndax te yeewoo gën nelaw tey yaari gaa seeni mbir mat naa xalam kiy daw lu bon fu mu toll ak ki lu bon di daw kiy daw lu bon ngeen jib murit la bu yéggagul ki lu bon di daw ngeen jib murit la bu daw baraw kiy mus lu am ndog mbaate muy daw yéggagul ndeke yegg duutul dox di mus lootee ka daw bul daf ba gis wax jii ma wax tax na nga naa daa dadaa musloo ka daw laajal lu xew loolee mu daa musloo ka daw dafa daa xamal xeetam wi waajuy door a jóg fu mu war di aw kuy wut yiw ak kiw yiw di wut kët bokkewul kiw yiw di raasee asal kay raasu yiw foo gis murit buy raasu yiw dafa yëggagul dafa yëgg dëggu yiw da koy raasee aw na nga ni nag kuy door jóg day raasu yiw ngir nit ku bëgg ku goj dafay sëgg guy teraw sëgg guy mooy fekk guy nga xànc koo raw ci ab goj goj nag mooy la ñuy yoor ci ab teen ngir mën caa génne ndox na nga yëg ne nag kuy door a jóg day raasu yiw ngir nit ku bëggub goj dafay sëgg guy teraw kuy jàjj ab teenam te teenam bënnagul bu mu toppandoo kët waaja ab teenam di saw koo xam ni teenam saw na mën naa dal sol mbubbam ak yi dallam tewe yi ngir jëm na kaw te ku bën ab teenam ba sol mbubbam di wey bu ko waaja bën toppandoo moo gën di ndaw sàggan jigul kuy door a lii maa ko wax yeewul te gas kuy jàjj day néewi nelaw gis naa la ngay dàq ab yëfus te seenu la kon yow na ngay def ba jot njaxlaf te dàqu la ko gis naa la ngay dàq ab yëfus te seenu la ko kon yow na ngay def ba jot njaxlaf te dàqu la ko kuy tewoo adduna kay sàkku am ko te ko fa focc laaxira bañ koo sàkku am ko te ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم sëriñ daame tey jii ma sàkkul lëlëf ci yonnen baag yàlla ak bamba nag sëriñ daame tey jii ma sàkkul lëlëf ci yonnen baag yàlla ak bamba li ngay wut ci ñii ñett yàlla nang ko am teew yàlla boo di jiitoo ka bég bu bis ci baayit bu neefaa ko man na jóg ràmm yàlla nang fa rusloo ku jóg bu bëri yépp deewal wal yi ñëw ba kenn desul yal na ngay mbër ma mbëri yépp wekk te yal nang fa am pay gulem gépp pay gu nit ñépp xaj ndax ku lay sopp jak ku ñuy ñee kanaw yal na lay ñee kanaw sa ndam yal na rëy tey te ëppit ëllëg te foo toll yal na ngay jëm kanam di dog mépp ndog tey ku lëf mën la dog te yal nang fi yàggit di jëf wépp yiw loo dee nga dekkal lu baaxul nga fekk sa mbir yàlla na gën mépp mbir yàlla na ngay defar ndaw di la biire it mépp mag ku lay sopp yàlla naw yiwam ëpp xel ku topp yàlla nay ku ñuy ñeeka yëg sëriñ Abdu mboolem li wax ci yow teew mag manam yii bayit laa fi teg te kët doonte am naa lu dul yii bayit ma fab jox la santal te ñaanal ma nag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 faral naa ko it cee ba dootul ñëwit nag sa bopp sa mbir def ci man te def ma murit dëgg buy sab xarit dinaa wax ci yow lëf lu tax ñépp xam ne kem amul soowu ak penku it ba ngay jàpp xaalis di dëddoo ka bañ akay sànni ci ga dex ngaraw képp nit ba ngay wéet akay muñ akay dunde ñax fa yéefar ya boobee nga fam ñépp not ba ngay jàng kay bind ñuy fooka moy fasag wet nga sut mbàkke mboolem ña sut ba ngay jaamu yàlla ka waye te kenn nekkul ak yow nga am say mébét ba ngay xiifa kay marte dencoo bu waxoo kenn say lor nga semmal ñamat balay quartier daa wër gannaaw ak kanam te ngay def ngaraw am xelit ba ngay damm sag nii te kay toggu ñam ku jóg romb lay nga dib yaaramit ba ñuy naan kay foona kay tuxu di saw fi sag wet nga am lol bu feeñoon nu ba kenn déggatul lëf ci yow déggatoo ci kenn lëf nga am may gu kenn foogulit bañi lii takay maa ngay jàpp yow akay julli boobee nga saf yàlla it bañi woote ngay julli bañ wuy ji woo bësal mël nga def mbég ca yonnen ba it ku lay toppandoo tey ci lëf moo ko def nde dooma roomam te doomaa samit ku lay toppandoo teemu dox fee nga dox ba ñëw fii nga ñëw lii rafet moo gënit te kuy ruuja kay bay bu dee toppandoo kafar mànku dof ay mbiram yàqu it ku def tey lu dul jox la boppam bu wér te bañ laa defum naw la day alkukat danga dox fa mbëri yépp dox nag te dox fa kenn mus la dox am nga jaajëf jumat danga boole waa àll ak waa kërit toraxuloo te jël seeni ndam lii rafet demoo wàcc saw nit ñu bon alkufar dangaa dem te fam ñépp yóbbaale fat dangaa man ci kër man ci ab àll it ku xam-xam ni yaa ëpp ñëw yow ñépp fit dangaa man ci kër man ci ab àll xam yow ñoo bokk nag yam fi yow lu am doo ca bew doo ca jékki xulit ku dul yow gëtam yaa nga jëm genn wet te yow nag sa bët yaa ngi jëm gépp wet ku dul dafay may boroomam bëbët bu wér mbaa far may njabootam gëbët nga may yàlla yow bët te may ñépp bët sa wet génn tëqul sa wet yépp a set ku dul yow bu geewet setee gee tilim bu geewet jotee sa kiit gee jot sawet yépp a set yow sawet yépp a jot bégal baarakallahu sam kem amut te noongoogu faw it di say dof yu fajal yaa di fajkat te yor ay dofit doxal faw diggante ñépp tawat ba kenn dootu gis kuy jaloo kay tawat na yépp far sedd mbir yépp jub bu kenn ñàkkatiw yiw ba firdawsiit te mboolem ku lay topp nag dee ko wan lu koy dolli gëm ak rafet njortu it te fenkal ci mboolem ku lay jox mbiram te leeral ko leeral barabbam ne defal gaa lay topp kay sopp far ni biddiw wa kiy weer a nga far féete nag yow ci suuf ca kaw sa mbir fi waa suusi ak waa kawit te def nuy murit yoo defar yoo gërëm yu lay dimbalee kay bégal faw it na ngay bég ci nun faw nuy bég ci yow nu far dund ci topp téeméeri at te sun at mu ñëwee ci téeméeri at yoo ab jaamukat jaamu sellal ko it te dàkkul nu mboolem lu jëm kon ci nun caay tiisa kiy lor tey ak ëllëgit dàkk bëgg a ñëw nga fexe ba te jàppal nu mboolem lu nuy teg gi kon ci ay may ak yi cant ak jàmm it te leeral te baaxal te neexal wéral sa digg ak nu nit faw doylul nu te may nug wér way ci loo nuy digal ci saa ngir yàlla ak yonne nit te bépp jullit def ma mbég cib xolam te dàkkul manaafiq ak ub yéefarit sama xol na fees sa mbég ak sa yëf samay cër na muccit ci loo diglewut li ngay soppa kay tànn nay saxa ci man te naa ciy saxet faw lii laa lu dul yow na may daw te naa koy dawit te naa lay fajal sépp soxlaa kawut yoral xol bi yor cër yor lépp

ndigal ak ngërëm dootu benn murit ndaxam am murit saa su lu dul ndigal ak ngërëm dootu benn murit murit dëgg yombul la yombay nga wax ni man ab murit laate doo am murit ku tàggoogul soxla kay du murit ku tàggoo ki soxlaa ji murit fabal sëb sëriñ teg fi sab xol xalam ba far fàtte say soxla lii dig murit murit buub sëriñ dul tuxoo fib xolam du am soxla yal naa di boobee murit yëgal kët ni duniyaa ak dex lamel te nag ab sëriñ moo di gaalug murit njegam ab sëriñ moo di gaalug murit moyul génn jëm fenn yow kii murit ko génnul du lab mukk kuy génn lab akay leb tey yaara yàqug murit telef man la teekat nga lab leb lu dul nga wut sëb sëriñ muñ ak murit ku wut lëf lu dul sëb sëriñ daal de lab teleb jupp far xët sartiy murit wutal sëb sëriñ yow te loo ñàkk muñ te loo am fabal jox ko kon ngay murit murid day muñug ñàkk muñ jépp lor ba sangam ba daakul lor murid lu dal ci ak ñàkk mbaa lor muñal ba sab sang teggil la ko yow murid ba sab sang teggee sa ñàkk sa lor ko lay deeti teg ñàkk kiy lor murid joxal sab sëriñ sag jur sab xolit te bul wax bul wax lay dog murit lu dul maa nii askadi yaa nii bu koy wax bu koy wax lu murit bu teggee gulit nag sa ñàkk ak solor ku koy deeti teggeeti tontul murit yabal nit fi sab sang wax ko lëf lu dul maa ngi koy sopp kay dug murit bàyyil dëgg yóbbante lëf sëb sëriñ lu dul ak jur bëgg def am murit dangay sangloo sëb sëriñ saw yaram te boo yëngutoo kët mu daw murit xamal yow ne ab sang day sangu nit te doo mu sangit ku deewul murit mu kallaf mu deewul ku koy sang mooy te ab sang mooy til lii murit li lee tax ku tudd murit yomba li taa gis ku tudd murit tey murit murit dëgg day dee te deewul asal le dee metti metti jotul ak murit amaana nga gis waaju tëb dal di te doo gis ku tëb def am murit gisal waaye ngi jóg di daw ci murit ba am ay murit kët te kët du murit gisal kii itam jóg di daw ci murit ba dundam ba far jee mu réer ak murit ku fas ku am ay murit dib murit te fas ni ku ñàkkiy murit du murit xamul la fi yëgul sax am ak li xew te kat du murit sax xamul luy murit li lee tax ba saytaane war gaa yi tey yi tënkug murit ci am ay murit te sax kuy murit ak kudul am murit te bis peñ lay feeñe yeewul murit bu dee seela yoo kay fexe jóg di aw siraatit nga xam yow ku doonum murit balaa kenn xeebaate war naa negit ba xam lay fasoo xew ci bépp murit murit yépp a ngi mel ni gàncax gu sax te gàncax xamul ak mu jëm kat murit te gàncax amaana mu jóg neex a gis maral dog ko jëkkuk ñoram cay murit amaana nga gis gàncaxit jóg woyof te naataa nga far jot ko waarul murit li ngay mujje yàllaa ko xam moo xamit kaneen nit la muy mujje jàppul murit bàyyil yab nit ak dox di xeebi mbiram amaana nga yab kook matoo ko murit ko tabbib nawet nag te góoboo ba ngar ba far manku doo xam la ngay am murit ku déegul lu xam-xam du xam ay mbiram na ngay muslu foo tollu am ndog murit na tuuba kay yeesalug njébbalit di xeebit sa jëf yépp ak sa murit ku xeebul jëfam dal naw ay jëfam ku naw ay jëfam dal set ci murit sa jëf boo ko dee naw dangaa réere kon ni yàllaa la sàkk ak sa jëf yi murit njagam xam nga tey jii ni yàllaa jëf bu wér ak sa jëf yi bayil ndam murit ku gis gopp buy naw mbayam moo ka dof te waxe jii ma waxe yow xalam koo murit ka gopp baa nde goppam ba kay te yow yaa di gopp bee murit sëriñ bee la yor moom itam Mustapha ko yor yàlla yor murit sëriñ baa ngi jébbal ko say mbir bu wér te def ko sëriñ kon mu def la murit xamal lay mbiram yépp jox lay ngërëm yu dul jeeki barke ki ngeen ji murit tegal lay lor ak gàcca ak ñépp ndog te yóbbal la yóbbal sa bépp murit nga far jekk-jekkal sa bépp murit nga sellug murit nag ñu sellug murit ba ngay sant ñuy sant ngay bég ñu bég nga mat ab sëriñ yow ñu mat ay murit li lee dig cëriñ nag murit lu dul du gennuk cëriñ du murit defarkat bi maa ak saatilim defar maate yow mii defar sam murit xesaw naa te fees ak lu soof ak lu bon setal maa ki yaa di murit xesaw moo di xeeñ bu tar xesaw naa te lu soof lu bon setal maa ki mbég yaa di géejug murit doxal saa di gég luy waral ak tilim te ma far def ma jantum murit gërëm naa la xam naa ne mat ngëb sëriñ bu wér waande yal naa la mat am murit te yal naa la saf saf sa bépp murit te yal naa la am am sa bépp murit joxal bépp jullit lu seddub xolam ba mboolem jullit yépp def say murit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 te moo doy wala fu doy tubaab ak ku ne sëriñ bee matub sang moo gën ku te moo doy wala doy tubaab ak ku doy na naar ak tubaab ak walaf te doy sëkk góor ak jigéen ak ku ne ci suuf ak ci kaw mbiram fes na ni jant tey moo fi ne ba leeral na suuf ak kaw ak bépp gox jëm na kaw aw turam dem fu ne ba max nay ngëneel ak njariñ képp nit ba koo gis mu feesal te am nag lu ne bu seeroo ku saggante bon mel ni man mu fab teg te kaw far ko may sag bu ne bu dee ku ñuy ba kay dox di mu nëbbug bonam xëpp ko wiiw wu ne ku ñuy dox di suxuloo ka soowu bonam balaa jekki kookee rawee kay gëne bu jàppee ku bokkam ya fab sànni fee bu delloo fa bokkam ya moo tane ngëneelam yi ñoo daj kajoor bawal te daj penku daj soowu daj wet gune amul genn wet guy ngëneelam newul ndaxam gaa yi waaye gën waaju ne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 ni cundum ci bàmmeelam ak ay jëfam dama dem fi ay sëg ma gis nit ni cundum ci bàmmeelam ak ay jëfam ma xam nag ni koo ni lii dig bu yeewoo dafay teel a jëm ci mbiram jógal jëm ci say mbir te bul toppandoo ñi boolek tayee nag nga lu nit fab di yóbbaale bàmmee la koy fajal lor lu dul loola fajtil loram te ak jur aku nit ku dee doo ko fab di yóbbaale faggul ci sega jur ngërëm te mboolem lu nit saytu yàllaa ko fab abal ko te buy dee mu nanguy yëfam liggéeyal ci say yëf te wut cay njariñ lu jar dem ba say yëf te la xoo ca ndam ku xam dëgg loo am balaa jee am ca loolee lu dul nammatee jee ndaxam ku am deq ku jajj tey gas bu wér balaa deq ba jee mu seerum ndoxam ab deq mooy mel ni ab dafa taaxoon ci nawet bi ku am deq ku jajj tey gas bu wér balaa deq baa jee mu seerum ndoxam te ab deq nag moo di dunyaa yëgal te gas moo de ak jaamu jaamul te gëm wér ak dund ak wërsëg kër gu jag du lëf kët ndarab deq yewwul te xam ku deqam ba xëy jeete bënnul përëj mu dëkkew ma rag mer di réccu yi jëfam xarit dëgg naanal te gas bënn yow ku def nii bu bis baa mu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 maroon naa nga bënnal ma teenub cofeel ma xiifoon nga far jox ma dàggay nga neel ma ñàkkoon nga jébbal ma mbooloo ki ma réeroon nga xëy may ma xam-xam bu ma soofoon nga far def ma géejug xoram gosaf sàpp seexal ma jox may meteel gërëm naa la nag def ma ab santkat bu lay sant kay way ci barkeb jabeel samay yëf du jee ndax te say yëf du jee ba ab sang dul jee jaamam du jeel damay sant ngir yaa ma dàkkul lu bon bu wér ak bon mbàkke yow laa neel ku lay won ma wan koy ngërëm ku lay won mbañeelam ma wan koy mbañeel ku lay sopp dundam gajag dee gajag ku lay bañ bu dee dal dem naari beel mooy sax te dootoo fa ba faw ku lay sopp dundam gajag dee gajag ku lay bañ bu dee dal dem naari beel ku dul yow pexeem ak soloom ak jubul sam pexe jub te yaa nuy fexeel yërëm nooti dolleeti nuy mbég yu rëy yu tooyal sunuy xol te may nun noteel bu siin ak bawal ak kajoor jolof ñëwan dal di feesal te doo xaaja jeel fëb lii an jamiixil waraa muridan sa kóoran bu doy lay nganeel ausu billahi min alseytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahimi wa sallallahu ala nabiyihi alkarim kolay jiiñatib sanga kay naw sa mbir xamal yow ni sanga kay naw sa mbir xamal ni ab dof la doo benn kët ku bànneexam ak addunaam ak bakkan di jëf loo ka waxuloo du ab sang kët bu fekkoon sa baay ak fi gën te moomoo bakkan yow gënoo kenn kët bu fekkoon sa baay ak te toppoo bakkan yow nga gën ñépp kët sa baay ak sa ndey gën te jëppoo bakkan di not faw tërtil nga dib sang kët bu ab jant soo ngay fanaanee nelaw di neenal sa bëccëg du ak cangkët ni dell ndox ak ñam ñu naa sang bee ga dof nag banaaxu dangay sankukët ni dell ak lu baaxul ñu naa sang bee nga naaxu ngir gu dof dangay alkukët ni dell ak mooy ak cër bu ak tilim ñu sang baa ngi li leb jay kët ñi lay kow kowee kay siyaara ka gëm dañoo réere bon gii nga bon rekk kët bu fekkoon ñi ngi gis te bon gii nga bon ku jóg teggi lay yi xam ko kët bakkan joñ la jiital nga far dib laram ñu naa yaa ab sang doo benn kët lar mooy joñ la jiital nga far dib laram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 daan na mooy koo xam ni day mën a jam lu diir rekk jam ko te bul def ba am puutar bal ba tax nga fab sag fital naa damay jóg rëbbi ku dul gis lu ko ndel wal di faj bu téqee du jam lëf lu dul àll ba fabal xol bi fab jur gi fab dàgg ji te fab kër gi ngir yàlla jox sang bi te gëm yàlla gëm sëb sëriñ gëm gure yi te am ak rafet njortu tey wóolu ba rafet njorta ku wóolu yi yaari yëf la ëpp taalu béy faab te jóg daw dabe melal yow ni waajuy faraasoo ka tex di wallee ka bay tey rafet njortu ba faraasu mooy jamono yiin toll koo xam ne balaa nawet bee ñëw day ji dugubam buy taw fekk mu daal di am njiyam bu tawee mu daal di sax tex nag mooy nekk ba mu taw te door a ji sa dugub walli mooy bu dugub ji saxee ba noppi nga wàññi ko ngir dugub ji mën a màgg loolu lay misaal ci dunduk nit melal yow ni waajuy faraasoo ka tex di wallee ka bay tey rafet njortu ba te bul def ku yàkkamti koo xam ni kii bu dee tex di wax kañ bisum ñamte ba awal ngir ma tey jaaba kay waaxu yow di wéy rekk kon lee nga gis dëkk ba te bul geesu bul jadd it bul taxaw te yëggoo mayul dëgg yow gàkk ba yoras lëf te yëggoo di pakkub ku jóg day toppi sangam soril pakk ba mooy lu mel ni bant lay doon bu nekk ci aw yoon kuy dox ti xooloo ko mën na laa fil nga daanu sab dox yeex ku yor soxna yoro fas yoraale yi alal te yëggoo na ngay yegge yow dëkk ba fabal lépp jox sëb sëriñ yow tewi wayaf toy kon lee nga jóg gott bi ku jóg suubu manding bu diisee du dem te manding nga suuboo jógal gott bi ku yëggul du mos kët la waa kër ga mos dawal yëgg waa ji ba mos nekk ba nekk mooy Grèce la ñuy wooye nekk ci lu jar dëgg ngay dund yow mii ba dee te foo tollu baa doola bi nangul yow ba am gépp pal nga dee ba kuy jaale naa ay lar bi yàlla bi na ngay dund mbaa sax nga dee léegi far te bul dëkk yow mii fi diggante bi ku baaxul ku naa kay ma ngay dund fen ku naa dee na fen ci sa dund bi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 ma jóg man te dee yaale ak sang bi ba dag yépp booloo ni xëndëg nelaw te dee yaale sax kët balaa saf nga nekk ba mboolem ku doon soowa kay wax selaw li may bëgg dee yaale nag duy dërëm du ay soxna duy fas du ay taaxi kaw du ay toola kiy dàgg duy kër yu du mbooloo mu may dox di santoo ko aw du luy ràpp kay tas du luy jeeka dee du lëf lenn sax far lu dul am la yow te yow bàmba mi wax yow ki gën ku dee fii siyaare ka mokkoo kanaw lu dul am la am laa ko gën maa ko wax lu far far lu dul ndaw sa saa ko raw ku far ndaw sa doyloo ko doo ndaxam ndaw sa dee tey foraatoo ko ndaw te wuy gërëm loolu dul jël bu wér yëgal yow ni far woowa moo gën di ndaw ku dikkën fi as ndaw mu jox koy séram te jeebal ko laaxal ko karaw këri jot mu tëdd ak moroomum faram ba kookiy séram kon na wax ca kaw lu far am lu dul ndaw sa loolee du tus lu dul ndaw sa nax laate doy nax yu ndaw ndaxam far wu bon sax du jël ndaw sa gën te ndaw sii ma gis ak canam duutu sew la muy bëgg yombul la muy wut sewul ka koy jël du sax gën du siiwey nelaw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 pexeelug murit yow ba am ak murit te def lu dul lii du faj kët dara ku te bëgga dal cëriñ jël ak murit doo ko man kët te doo am dara ku jéggig murit dem di yootug cëriñ dafay ñàkku yiw ñaare amtil dara ku jëm ci cëriñ faw dox ci murit doxal ci murit boo bëggee faj dara lu guy rëy rëyub datt ab gif la wan sëriñ dib murit wan bu moomul dara sëriñ day bawoo cig murit dib sëriñ jagam lii amul doonagul kay dara ndaxam bépp lar bopp xolam bëggalëf lu dul jëm mi sangam yayoogul dara ku bëggul lu dul yàlla dëkk képp xolam narus yàlla seetub xolam gis dara ko sab xol setul wi ci yelloo walaa pexe laaji kon yàlla yow sax dara wutal ndab ñu dal lay joxu ñam wu doy te ndab lee di ab xol bu bëggul dara ku bëggul lu dul yàlla fees ak njariñ akuk mucc dib lar bu ñàkkul dara damay sàkku nag ndab aku yiw fi yow ki am ndab aku yiw te bëggoo dara ku dul yow amul ndab amul wenn ñam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 bu may jóg teraanga ak mbég dal di jóg bari xam naa man war na ma ku tàggooku ay nag te lëkkooku yiw bu santul boroomam bu wér bett ma ku am wér akuk dund ak mbir mu jag mayam gaa nga koy wax jógal sant ma te yii yépp am naa ko man Baabakar tawat man banaa la yawit nag ba ma te yow cant mi gën tawat gën gu wér asal jàpp naa laa yawit jàpp ma tawat maa ngi lay daw yawit dee ma daw cëkët maa ngi lay muslu yow muslu ma teyit cant laa jàpp def kopp xarit tawat dëddu naa laa yawit dëddu ma tawat léegi tàggoo nanum ngir wéyal te bul seeti fi man fàtte ma te bul may ganeete ka dox saa barab te foo man di jubloo te man teggi ma bu sab tànk jam mukk saa genn kër na ngay moytu saa kër manit moytu ma moyul saa kër ak saa yaram ak samab murit faw nag yow tawat moytu ma laxas naa la ab tànk yow canti mii te man jublu naa laa yawit jublu ma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 li tax man ma jaaxal samay kem dama demul won ba ñuy dem tefar jiitu leen dañoo jóg ca man ma xëy man di muñ bagaalug ndigal ñaw ma war romb leen ñu far mujj may dox di santoo kadab te kenn seenatul laf ci man waaru leen ku daa santu aw nit di waaxoo ka daw ñu far mujj koy santu ndax yéemu leen sëriñ bii du maasum ña teew ak ñëwey ñi teew ak ñëwey ñépp semmal na leen ku koy wékk mbir am ñu lay wékk mbir du leb loo ko mos a murit sant leen du wax jenn waayam muñal jëm ëllëg da koy dal di jox dik ko ëllëg yeneen dañuy ñee ko kam tey bu ëllëg ñawee ñu far gën ko faañee murit seere leen te ñam wu ñuy togg woo xam ni day xaloo yéemu buy bax xesaw dégg leen li nuy am ci kër gi la nuy am ca kër koy xaloo gën murit waaxu leen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 liggéeyal boroomam baam lii mu am ma jóg man liggéeyal sëriñ Bàmba mi liggéeyal boroomam baam lii mu am bañuy kër këree kay xare kay wasal ma ngay jaamu yàlla kaway yonnanam ba ñuy bëggi dongoo ka wootek cëriñ ma ngay bëgg yàlla ka sellal jëfam ba ñuy fonki juddoo ka fagguy alal ma ngay fonku diine ka faggu bi yaram bañuy ñuy denc jurgee ka aayee ka nay ma ngay denc téere ka dëddug juram ba ñuy daw di dab ëddunaa kay kobas ma ngay daw di dab yàlla daala ngërëm ba xalxalee kay jamaalee ka jam ma ngay diira kay jam ngërëm jam na ndam ba ñuy taali jàngoo kawal ma ngay sos ci suufuk murit cey mbiram ba ñuy xambu kéefër di xambuk cëriñ ma ngay xambu taalu boroomam diggam ku daa taalakub taalamit fay na tey kamaj bamba daa lay bérex ak ñoñam te nay bérex nuy bérex muy bérex nu teg cey béréx faw koo ji si wedam nu déggoo juboo am ngëneel ak xoram te gudd fan am lu kenn am أعوذ بالله ngërëm gaa ngi fi nun ku lu dul dem na jóg ñaani paas saxaarum ngërëm gaa ngi nii tey fi nun ku bëggul lu dul dem na jóg ñaani paas te mboolem ku duggul bu déqee ba wéy nga rus sonnu am gàcce nan ñaani paas di saggan ba muy dem nga jóg nag di dox te doo yegg ay la nan ñaani paas te jóg léegi daw dugg moo gën di nekk ba muy déqi ngay yuuxu nan ñaani paas di yuuxoo kawakkaaju muy daw di wey dotaarum mu kàllaf jógal ñaani paas xol jur akuk aw ndigal faw yëgal yow nii yatt ngay ñaani paas te doo tabbi mukkit saxaarug ngërëm te jàppoo bu wér yatti ñaane paas ku fab xol fa jur fa aw ndigal joxub sang waatal ne doo ñàkk paas cofeel rafet njor takug wóolu it ku fab yetti jox ko am ngën ji paas ma far wax la nag luy saxaarug ngërëm ba dootoo ko réeree ti doo réere paas saxaarug ngërëm moo di kët bamba mi ne cas nag mbir jox ko looloo di paas te bambaa ngi nii di yab aw nitam njegam bëgg nga raw jógal jox ko paas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 jógal farlu ngir yaa ngi ci bulol li yow teeb lol buy wéy amusul fi jafe njëgam mu réere nga lol li lol ngi nii wéer ak dundu ak doole lol jafe ku sab lol li ñëw nag ba say yëfu ni xos la gën ngay ku yombul kumaasam jafe jëfal guddi jëf bëccëg ak sépp saa ba ko seeru naa kii jëfam yee jafe ku def nii ci sab li doo jee bu nooree te doo xaare yeewoo jafe bu dul kon nga nelaw koo fu gis ma ngay farlu ngir xam ni lee jëf jafe ku jëm cib ja romb xaalis di wey bu yeggee di gis yëf ya njëg jafe bu nit nee la ñépp naa dootu jóg mu xemmee ma jóg jëf te jóg jëf jafe xarit dëgg ngooral ci xaalis bi yow te kat léegi seerub dërëm sax jafe ngoor mooy loo ëmb xajul ci say loxo nga ngay fegat ngir lépp mën na ne ci biir eh, li nga xarit dëgg ngooral ci xaalis bi yow te kat léegi seerub dërëm sax jafe ngirug mag akug ràgg ak dee ngi ñëw bu ñuy yekk si defu lëf bon bon jafe defal yàlla lëf bu mujjee jafe amas lëf ci yàllaati gën koo jafe

ku muñ yàlla far ub sa buntub tawat te ubbil la buntub yiw ak suuy bu neexee sunub sang nun leenu ree te mboolem ñu nuy noonu it dëkke wooy ku nuy rëbba kay wut asal doonu gis ku dul jóg fi sangam ku koy rëbbu sooy fa yonnen ba jaaroon ba wéy ak ñoñam la bambay doxoon nun sunuy xol na tooy bu soobee ka bindoon aras leenu jóg te jag faw ànd ak xol yu nooy ñeney dox di reetaan kay wax bon dañuy mujj bon bay foraatoo ka yooy sunuy xol na sedd sunuy soppe bég ku nuy socci sunuy mbay du gooy ku xaaru xaddi ku bañ du bég xolam dootu sedd te taalam du nooy ñaay dal du nun kay ña lottit du nun ak lotta ngay jëm ca ñay fooka fuuy sëriñ baa ngi yor nguuram ak xam-xamam di jox ñii ka xaññee ka jubloo ka juuy te nun yal na jóg jublu noo kiy mayam te joxu nuy ngërëm faw dàkkul nu jooy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ndaxam gaay may sii kay dox di bañ li ñuy bañ ci man mi du man mi ko def ndaxam gaa yi may sii sa kay dox di bañ li ñuy bañ ci man mi du man mii ko def li ñuy bañ sëriñ bee ko fab def ci man ndeman lottu naa sax ci def lenn lëf sëriñ bee ni cas ay yëfam def ci man yëfam rekk laa yor ndeman aw ma yëf dañuy gas ngirum ndox di bay ngir dugub mu jox mag dex ak ràcc mbég par ko sif ràcc mooy bu ñu toggee laax te mu tàng noonu ñuy def ko yëkkati ci kudd gi ngir mu sedd loolu moo tudd ràcc dañuy jàng xam-xam di wut ay dërëm mu jox may dërëm sol ma xam-xam ba faf dañuy wut ngorooki gorooki jabar mu yet may ngorooki jabar lii du kaf dañuy jënd akay jur mu ñëw far ni cas lañuy jur akay jënd jébbal ma tef bileb dànn yombul te moo dàq jam kemam yépp buy téq cin dal di saf bu dee téq lor dem njariñ dal di ñëw ngërëm yegg si xol sedd kii baaxi jëf du mooy ay moroomam te nag am xelam du daj mooy boroomam ragal naa suruf dafay dimbulee kay fa bee kay jariñ di may ñépp ab diglee ka jëf dafay wattu boppam di wattuy kemam du fiiree ka jannee du wan kenn laf mooy doole أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ci yow yow dong laa am ci ab jublukaay yow nda barib tër du tee kay ma jóg jëm ci dex di yaakaare set nag bëggën jépp waay amul gàkk boo xam ni mën naa waral ma jóg mooy la ngir yaa di saapuutukaay bu may réer a kay tëx a kay bon jëfit samay njortu ñëwul ci yow ngën ji ñi baax ak ñi bon seeni jëf yaa ko yor te yaa gën ci ñoomi nday ak ay ndijaay danga am ku dul man te man oo man ak ku dul yow faral def ma ab wuutukaay te yaatal ma bënnal ma may gën ji dex gudul ngiis akay fer akay jeeka daay ngiis mooy fu ndox nekkan ba yàgg mu dugg ci suuf ba jeex loolu la ñuy wooye xaritam mooy mu dem ba ndox nekkatu fa nga gis fa ndox ma nekkan di def ay fet fett daay nag mooy mu dem ba mu xamante mu mel ndox mus faa nekk lu may ay der rek des fa te yaatal ma bënnal ma may ngën ji dex gudul ngi sa kay fer akay jeeka daay te feesal ma ak kee gu gën gépp kee gu saf yàlla saf ñépp may fab di jaay moo di wurus ak xaalis ba mboolem ku ñuy ñee kaxal seeta ñee ñu far bokk nuy ñee ci bépp jataay ku ñuy topp ñeenu kacay topp ñee ñi niy topp nuy ëpp ñéppi ngañaay fabal lii wax may nu faw ngërëm ngirug baaxe tab ku lay roy du aay tabeekub yarak yërmandeekug lewet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 kuut waaju mbooloo di wër dal di gis kuut nag ku mbooloo saful gis tëla te koo gis lu dul yàlla mii saf ko musul yàlla lii maa ko wax dëgg la ku mus yàlla aw nit ak gu du saf te sab xol ku lëf saf asal yëggu la ku mos yàlla munuñ adduna kii mbégam te dootoo ko soppit ngir gent la xarit lépp luy tee nga mus daw akay mus lu ngir loola saytaane la na ngay sell sellal sa xol set welas nga far dëddu dunyaa te wey noonu la ku war faral war ko jëkkug waram te dunyaa waram yi ku déegul la faral dëddu far muñ bu wér ngir kuñuy wutal lay mu ñub cox bu wér war na la ku feesal sa biir ak cox ak am sibet bu ceeb ak cerey lay jógee teg gi la cox mooy bu ñuy waaj a defar cere dindi gi ñuy diggan dindi la ca ñuulan ca kaw ba mën a nekk cere loolu moo tudd cox sibet mooy bu ñu bu ñu ko soxee ba noppi jël ko def ci ndox mi raxas ko ba mu set ngir mën koo wal loolu mooy sibet mu ne ku ca duy sa biir ba mu fees ci ab cox akam sibet ceeb ak cerey lay bu jógee yi lay nag dalay dalay boo ko duyee ci cox ak sibet ku feesal sa biir ak cox ak am sibet bu ceeb ak cerey lay jógee teggi la ku duy sab xol ak hubbu yëf di woo yàlla nag kon nganam jomb ku duy sab xol bëgg dunyaa yëf di yoo yàlla nag kon nganam jomb ku dul dox di xemmeem a wut lu dul alal daala ku nit ndaxam gumba ku jóg ngir wutu nit asal bokkul ak ku jóg gadaw nit lile bu wuute la di am am lu as ndiine ngir bëggu nit ak gu li léeg mooy la ak sànku la royal yow ña daana bu diine ku yiw te bul feeñu ngir bëgg kenn topp la murit seetu baa ngi fabal seetu nag ba xam ngas mbon mbonam taqu la fobal dal di seetoo te loo gis faxas njëgam bëgg nga buur ak ñoñam sopp la defal lépp luy tax ñu naa yaa fi gën te daw lépp luy tax ñu naa baaxu la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن nit gu bon jógal faj ma yaa faj ku tawat naa samag bon ci yow mi fajal nit gu bon jógal faj ma yaa faj ku ne fajal dëgg mboolem samay ragg tey ba mboolem samay ragg wér wér gu ne man damay bon bëggën fee bonit du tee mbàkke may seenu ngir yow lu dee faame maa ngi koy seeru ngir danga def ko am ngor te gën waaju ne ña daa jàpp mbooloo jubal seeni mbir ci saa boo fatee won ñu mel ni gone li may soo fa kay def ku suufee ka bon du tee kët ma yaakaara am yiw ne te xam naa ni lari yépp man ñooma gën te saa yooya booyit ma gën lar bu ne jiitu gën ñépp jumbul ndaxam ci man ndax te saa sang bee gën bu ne lafañ sax bu géewul te war gaalamit dafay dal jot ñépp far raw ku ku baaxul te sang gën ñépp yit saxal cant kët war ci yow war gu la bon dëgg sang laram bokk bon ku bon sangamit bon mu bon bon gune la gën dëgg sang ak laram bokk gën ku gën sangamit gën mu gën gën gune te nun nag sunub sang gën ñépp kët nu nit yal na nuy bokk gën lar bu fajal noo fajal raggi xol ak yaram nu wér cing far ëpp ak wér ku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 te xam ni may gi jox ko it mu loru murid day fajal ab sëriñ ay loram sëriñ day fajal ab murid ay loram murid day fajal ab sëriñ ay loram sëriñ day fajal ab murid ay loram ku fab lar yanul la yanul koy loram ku jóg faj semer ay jógal faj meram ku gàddaaye suufam ba ñëw nag fi yow fajal koy loram yépp gàddu yi mbiram murit boo fu gis gan la ñeelub sëriñ di yar teral tey seral ab xolam bu baaxul muñal sab na tookon bu wér te koy fexe génne ngir ak bonam gisal dëgg saytaane bon gii mu bon te yàllaa ngi koy baaka seet ak yëfam yawit dëgg bul def ku bëexul nga fab ni xër ci ab àll lii kët du ndam xamal yow ni lay ndam mel ni dex ki fees ak yiw ay te tilim melal dëgg ni dex te mboolem ku ñëw fi yow ngay gërëm buy demit ngay gërëm te bul dàq bul bot de bul yàq nit na ngay maandu bul lor ku ñëw mbaa ku dem ku jóg ñëw fi yow jox ko àqam mu dem bu dëddee fi yow dem bayil ab deram ku ñëw may ko ab yar te sàkkuy mbégam te buy faddu say gët nga fàttewu turam faddu mooy ku bàyyi ko fi yow dem ku ñëw may ko ab yar te sàkkuy mbégam te buy faab du say gët nga fàttewu turam na ngay muuñ a kay ràcc sab xar kanam te bul defu ku bon kuy rasub xar kanam te bul reeke bég bay niroog ab dofit bari ree ak i mbég du may nit xorom ndaxam mépp mbir digg doomoo ca gën ka sëkk ëppal ku ne kuk moyam royal na ci suuf nga gis ñépp war di def ay te doo dégg bis njàmbatam dañuy jàpp xaalis di jàppi tojal di def nag ci biiram te déggoo waxam ñi baax ñi bon ñépp a ngi toŋ ci kaw di jëf yiw aku ay mu taqoo xaram ñi def ci biiram lu baax ak lu bon te déggoo mu naa ëska it mbaata cam ku bëggul lu dul raw ña teew ak ñëwe yi te raw ñiy fasoo ñëw na sàmmi cëram te fattey moroomam te farxante woo diggantee ma kub sàngam ay jëfam te dëkk ak rafet njor takuk aw ndigal ak gutu ba ku ko cant ak sax ci gëm di noppee ka farloo ka yéemu bonam lewet dom mu jàpp ak njaamburam bu guddee mu jóg tey xalaatug moyam te naa yàlla moo tee nga far yërëm di waaroo ka waaree ka xam lee ka xam di la biire koo gis te bëggu yiwam man nga lii yow defal boo mënul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 ma jóg sant bambaati ngir moo ma may lu saa xel dajoon ak lu saa xel ngir moo ma may lu saa xel dajoon murit yaa ngi booloo di lim seeni may te man maalim samay may asal dama torox ngir lii am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 te def kom ndox ak ñam akub sant far aku fas te marhaban nii la kay te def kom ndox ak ñam akub sant far aku fas te war marhaban nii la kay أعوذ بالله من baa ngi nii jox na lay yu doy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 ku sanniw sasam feete sanniw sayam bu dikkee fi yow mi bayal bul koroy te koo kët am na aw sas wuréy wudul jeete diiwul wayal gépp way na it tërëy yow te sag parlu sax lu dul lii du may kenn ndambaate way na say it tërëy yow te farlu sax lu dul lii du kenn ndambaate way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 ku siiyul ba jeex takk sak caf ka des ku sak caf ka des tuuti doonee xanaan murit dëgg seeyal ba jee takk yow nga dem ndox di suukar ba far nee xanaan te sang kay doo ko saf mukk yow te ba dem ndox mu yëngal la naan ku seeyul do saf waa ji seeyal te saf te saasoo fab la naan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 bu ñépp dee daw di jëm ci teen kay wuti ndox fëxal te daw wuti baag a goj bu wér soga dem bu ñépp dee daw di jëm ci teen kay wuti ndox fëxal te daw wuti baag a goj bu wér soga dem kon boo demee dal di duy say ndab duyal ku la saf te doo fa jekki xuloo kay wax yu ñàkk xoram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 fee jant bay fenke ak fee muy xaloo soye man yilif ko ak laxasuy yalwaani laa yame la fee bay fenke ak fee muy xaloo soye yilif ko ak laxasuy yalwaani laa yame la ku dul bind aras xam naa ni fëj ma lëf ku man di ànd ma nit day mujj teg ma fële samay moroom a ngi nii tey jii di jekki fi man te buy rot ñu jóg jébbal ma yàlla mi le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 te bul ko nit bay def lu yàlla bëggul bul dab merum surga it bay jot merum kilifa bu kenn wax lu amul bay tax nga naa ko amul koo gis fu mbooloo mu naa nit fen nga kat ganu fa bul jéppi kenn te bul jayit sa bopp bayil lu dul lu yàlla gërëm kon foofu dem tane fa fug dëgg jëm na nga jëm foofee ngërëm fa la jëm fug dëgg mooy na nga mooy foofee ngërëm néew fa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 kutal ni yow te jotul maasam ga tee mu dawal takkal te ba max saw fas mu dawlu mu man ngir yow barab ba nga jëm mbooloo mi nee bul geesu mukkati bul daagooti bul taxawit yii yépp wéy na te def len nit asal jotagul taxaw di geesu warul mag mag dafay wéye wéy mag wéy na dundam ba wéy moo tax mënaa la wéyal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 mu takk ba yàññ loolu moom la ñuy wooyee gilin yow di bokki gilin tey taali daaya ka wal sa bopp man xoddinaa mboolem li wër sama kër sama nit ak sama kër ak man bu yàlla ya boo lor mooy nu ngir dex gu yaatoo kuk mbayee fa nu wër sama nit ak sama kër ak man bu yàlla ya boo lor mooy nu ngir dex yaatoo kog mbayee fan wër waxtaane yàlla gaayam yiwu nit masa am xamal ni kët ca tukkee yow murit bi xamal waxtaane yàlla ki gaayam yiwu nit masa am xamal ni kët ca tukkee yow murit bi xamal waxtaane duniyaa gaayam bon gu masa am xamal ni kët ca tukkee yow murit bi yëgal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 jaaraaki doomama jël ndam ñoo amit jërëjëf moo jiitu soxna yi doomam jiitu ñi tubayu jaaraaki doomama jël ndam moo amit jërëjëf moo jiitu soxna yi doomam jiitu ñi tubayu jaaraaki doomama jël ndam ñoo amit jërëjëf moo jiitu soxna yi doomam jiitu ñi tubayu kuy soxna jaara la gën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 may nuy barab yu ni dell gaa yu juboo te feesa ko bu yar lewet njax laf leeri jataay yow yàlla def na la def na la xaritam te def na la soppe def nu soppe def nu sawaay أعوذ بالله من boo jaamul yàlla ngir jëmmam ja jaamu ngir firdawsi mi fees ak i wurus ak boo jaamul yàlla ngir jëmam ja jaamu ko ngir firdawsi mi fees ak i wurus ak i te fees ak i cant ak tànnee fi jongama yooyu yaram ya day leere nii seetoo ki cant ki weer te fees ak i ak tànnee fi jongama yooyu yaram ya day nii seetoo ki jant ki weer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 sëriñ ca ak seeni ngir ak seenu nit defaral tey fonk tey suturaal kon yàlla fab la gënal bul xas te mukk te mboolem waaju jóg di la xas tuubal te fayu yow kon yàlla far fayul lii saafara naanal kon nga ni pelang te li ngay wut te dootoo gis lu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 sëriñ bi moo ma yar duma bew njegam dangay sànke seetal waaju kenn yarul yëgal ne man kat sëriñ bi moo ma bew jagam dangay sànke seetal waaju kenn yarul auusu billahi min alseytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahimi wa sallallahu nan jóg léegi saa ku sun bokk yaa ngi fi sëgi naa ku nuy saraxal nun gaa yi lay dund nan jóg léegi sàkku yóbbal sun bokk yaa ngi fi sëgi naa ku nuy saraxal dun dégg dun gis te am ay gët du tax nit a gis koy gis te doo waaru koo kee kët gëtam ya kër yaa ngi sëg yaa ngi lii koo xam ni gis ko tey soxlaati lëf lu tutub yóbbal sa xel bariwul way man te way man te way man gaa yi réer aka bon yaa ngi lee nuy booyal te lii waxul noo ngi di saggan di sakkuy teelu beeki alal ba dee gi xëy sinu ay nan tuubi lii deful te bët bu sébbee ku am am xel dangay baya bay bu dee fi peese ji ay mbay luy pexem ku bayul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 ku dee ba ko sang waaja yóbbu këram nga dégg soxna ya jooyoo ku nuy xala mboolem njabootam ga naa moonun fu nuy xala jëm wala réew yi wéy ko mat fasal mboolem njabootam ga naa moonun fu nuy xala jëm wala réew yi wéy ko mat fasal subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin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 bal bil bushaaraati mimman maa lahu saani bi jaahi waasitati il marjuwi rahmatihi xadiimi nuuril baraaya xayra hadnaani halay aska salaatil hayyi mursilihi bilaali wasabi man saddu anil faani nihma rasuulu wa nihmal aalu kulluhumoo nihma sihaabu wa biisal kaafirul jaani bihim wa bi cheikhi abri xayra maxfiratin wa rahmatin wa sawaabin kulla azmaani bihim aruumu qada haaji huna wa gadan bihim ganiitu han ixwaani wa awtaani hanni jasaahum ilaahul harsi xayra jazaa yafuuqu kulla jazaa xayrin bi ihsaani habli qusuuran wa aswaajan mutahharatan huna wa hanna bila shakkin wa nuqsaani wa xud ilayya mun addaarayni qawdaridan jamiihaha wakfini waswaasa saytaani yasir lana xayran iswaanin huna wa gadan wa xayra duurin wa xilmaanin wa ridwaani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ba seeni ba seeni bakkan seeni jur raw nañu ñàkk ak lu dee ragal ñoo def lu wérul lu rafet ñoo am lu wér lu rafet ñoo nangu nangu nawet ñoo war saxaari ndigal njëbbal gu wér rekk wér moo am njariñ ku ko def raw lépp loo bañ te jot loo bëgg jag te jagal ñi léegi bafungu ñi léegi waaxu ñi wari fas murit ya dugg gaaluk cant benn fëxal ñilee ngi rootaani ñee ngi jaj ñee di nasal murit ya faf soobu gee jug mbég balab di labal ñilee ngi jàng arool ak aajaroo makina murit ya faf xëy ni ràpp ak yàlla jàpp ko jël ñilee ngi bay ñii ngi jaayaatoo kasakku alal murit ya xëy taawu junni junni ak palipal ñi lee ngi tàbbi fu ne kay laaji yoon aki sil murit ya ni ca dëkkub ndamba cëpp feetal jam lépp faf lare lépp ak ñépp fenke ca kaw raw seeni kem seeni kem xëy ngéejulee na dawal kalanda dal murit du sang moo di ka ëpp murit te ab sang cey la ko dal nun ñépp yàlla nanu lii mooy faw mooy gu rafet tabarka dal nu ci kaw bopp ak lu dal sunu xel ku ànd akuk dex lu muy ñaaneeti ndox ak awut boob jant fenkee lu ñuy niit ak lu dee si ragal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن dawal baraw ñi ngi lay yuuxoo kasoo wa kanaw tew rab bu koy xaj baw nay yokku xel rëwagul dawal baraw ñi ngi lay yuuxoo kasoo wa tew rab koy xaj baw nay yokku xel rëwagul aw rab nee meŋ dootoo seeru xaj bu ko baw ku dee fi yéema kanaw kookee asal rëwagul marax bu maasee ñu naa bi diw bu leera nga ne weerit bu feqee ñu leeram gi ëpp na xel te xam ni jant bu fenkee kenn du yéema ku dee fi yéema ka asal rëwagul sa ngi dégge ngi ab ngi dexe ngi te géeja ngi ëpp leenum ndox xarit xalamal teewul ku nekk fasay kem ngay manee amu ku am fasay kemu tur saw ŋàññi rot na asal gasal di wey yow te bul geesooti jal nga gas kuy gas di geesub jalam lay ngën ji ndam du ko jël te jal bu rëy sax du ndam xëy bën rekk di ndam loo rëyub jal te bënnoo ndam demul dikkagul gasal te bay bala ngaa am ndam lu kenn amul sa jajj bënn sa toolit ñor nga mucc musal sëriñ bi yàlla na nu may ay jajjikat yu sawar te may nu nuy jajjloo kay jajja kay rafetal te yàlla na yokk sunuy xiiwal te yokku nu gëm te dolli nuy ite may nug way ci topp ndigal te yàlla na fab jépp lor jox faw gaaya nu moy te jox nu faw nga ni ëllëg mbég mu kenn amagul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 njegam bëgg nga yow sag murit jag te wér moyul marsandiis ak jigéen pexeem moyul marsandiis ak jigéen pexeem te diglu sax ay waxam mbaa tereem ku yi yatt kay daw bu wér akay muslu woona asal tus kareem te kët yett yi ñoo di yi murit dañuy muusu itteem akuk taalubeem te kat ñoo ak max ba tey ci murit te doy na mboolem murit yépp pasaam ku bëggul lu dul yàlla ak raw lu bon na def yi bayit cib xolam ak jibaam murit dëgg day sàmm cër sàmm xol du xoolee dem fiw jigéen nit ne kaam ku sàmmi cëram yépp sàmmub xolam du gis jenn lor ndax te génnul sangeem ku jóg tàbbi dex war saxaarug ndoxam gu wér doo ko gis lab bu génnul pëkéem murit boo fu gis nag pëkéemay ndigal bu cay jóg ni can ndax dexuk alkuteem ku génnul ndigal nag du gis ak mbugal ku xam aw kaawloo ko ay fereem waxal nag sa bopp sa waa kër bu wér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 عن النبي عليه السلام أنه قال ليلة الأسرى إلى السماء أوساني ربي بخمسة أشياء فقال لا تهلق قلبك بالدنيا لم يخلقها لك wajal mahabbataka fiya fa inna masiratakum ilayya wajtahidu fi talabil jannati wa kun aysan min al xalqi fa innahu laysa fi aydihim shay'un wa dum hala tahajjudi fa inna nasrata maha xiyaamil layli njaccaara ngi silmaxaa ngi gàddu seeni fetal di téq kay moya kay jam jàpp rekk a ware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 te nit ñépp a ngi yox yoxe kay ragal jógal ràmmu mbaagam yi dem nit ñi bon bu ab sàmm ne cell jur gépp jee bu jur gépp jeexee lu muy sàmm kon ba nuy dëddu kër baay ak yi ndey di ñëw wutug mucc a tax mbaa lu nuy wut kon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 mer ak jàpp mer day alak am murit meral say ay bi yow gërëm sëb sëriñ di daw nem matam nag ba am ay murit jom ak jikko ak fulla yi yetta bon jigul rëbbakuub dak jigul am murit ku am yett yi du am yett yi ngërëm barke wërsëg yëgal lii murit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 nit ñi nga gis jëruñoo waxal jëruñoo defal loo man di def yow ko def ngir yàlla daal nit ñi nga gis jëruñoo waxal jëruñoo defal loo man di def yow dee ko def ngir yàlla daal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 kuy bon na bon kuy jub na jub lu ci man de am man may liggéeyal yàlla tey gëm bàmba daal insha allahu taala al karim xarit nit ñi kenn mën la tax ñuy gërëm te kenn mën la tee ñuy gore dee ka jëw xarit ñi gërëm te mën la tee ñuy gore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 yal na nu sax dàkka ku yiw wu dee si yéem ba dugg fir dew si nimal dee si yéem la dale fii nu ne ba jàpp àjjana yal na ne képp fii nu nag dem àjjana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 ku jëm ci ab junni yam ci tànk tax nga taxaw sab tànk day dal di jee sab junni raw nga gëlëm bul jàpp loo xam ni moo gën lépp jënd ko lëf kuy jàpp yàlla di jëndes lëf asal du ko am lu nammatee dox sa digg ak yàlla sànni ko te jëm ci yàlla ki gën mboolem lu xel di xalam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

ci waxin wi mooy lépp looy tàmbali te àggagul moo tudd ak jàjj li tax baa yewi kuy wuutee ka bon amaana dee fi yabal nit rekk ngir mere yabal bu lëf ruufuwul boo xam ni àndul akas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 kuy gis bu koy gumba nammee yët werante mu far ba seeni tum dal di wey ñuy réer kay alaku ab tum mooy bant bi gumba di yor ñu di ko ca wama sëriñ bi ñam wii mu yor lay sàkku ndab lu ko def te wut na wut ndab lu ñam wii yàlla dem gisu ko te doonte jox nga ko junni junni it du waral mu jox la ñam wii te ni woo wett far bayiku lu dul ni wett ni dallu nepp rekk wu ñii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 tegal na nu ragg ak dee may nu dund ku yiw doy lul nu wëllis ku dul moomit ba gëm nanu ko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 yaa tedd yaa ma teral yaa mucc yaa ma musal yaa jàpp yaa ma jàppal ma sedd nga ma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 ku xam ña daa tëggi junjung woote ñépp di ñëw ak gaaya daa xeebi baa dooloo kaxas anañu moo jaaña mbooloo ya daa wër gàddu seeni fital di sang kay sang tey jii ku xam anañu moo jaaña daa dox di wëndee xaree ka wasal akay bañaaroo ka dàkku nit ku xam anañu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 yow miy nelaw te xamoo sag muñ na ngay nelawe yow miy nelaw te xamoo say mbir na ngay nelawe yow miy nelaw te xamoo sag muñ na ngay nelawe yow miy nelaw te xamoo bis penc boo fa layoo dangay yeyam dañu lay yay moona ngay nelawe yow miy nelaw aka xunnee kay xaran te xamoo na ngay doxee gun siraatit moona ngay nelawe yow miy nelaw guddi jëm waxtu fajar te xamoo naaree ki àjjana foofuy jëm na ngay nelawe yow miy nelaw te sa lollib dund wey te amoo loo yóbbaloo fa nga jëm moo jaana ngay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 xarit bul tamal yow sa bopp la jël te loo la tàggoo la tee diw la jël xarit bul tamal yow sa bopp la jël te loo la tàggoo la tee diw la jël kafee kiy ataayaa ki miskit jërul di xaaree kañaanee kaleb cam muñal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 lu dul yàlla yàllaa ko gën dëgg yow wutal yàlla moo gën di wut ay mayam te foo gis ku saytuy yëfam kët na lay gënal ay yëfam ngir ku gën yëfam karaamaa ki xar baax a kiy xam-xam ak alal dog nañu nit ñu fonkoona dem ña daanaa dox di wax garab ku cay seeru boppam mbiram farfayam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 muñal kem li ngay muñ la sa wiiw di day li ngay sàkku ci muñ nga koy làqe kët muñal kem li ngay muñ la sa wiiw di day li ngay sàkku ci muñ nga koy làqe kët dangay sàkku barkeeku yiw ak ngërëm te yii nag muñay seeni ndey bul tawat fa ñuy ruuje tool ak fa ñuy tibbe sax la dig muñ fi diggante bi raw na bët bu ñuy góoba kay gar ña daa bay di muñ ña ngay reeke fab seeni mbay nag di fat bu nee daa bay na ñëw fab ngaram nga bëggoon a am ngar lu yéemoo xarit bu nee faaku daa jëf na jël sig payam nga bëggoon a am jëf ju kenn dul xebat ku muñ muñ gu rëy faw am pay gu rëy muñal muñ gu rëy ndax nga am say mébét ku jóg jëm ci ab dëkk gis am ngërëm da cay dal daaw wéy njagam def na nit muñay ngir ma jëm nag ci dëkkub njariñ xanaa dëkk boobee nga jëm léegi it bu ñuy fay ku nekkub liggéeyam ëllëg ñu ñee gaaya daa muñ lu diis ak lorit te loo man di gis ci lor ak tiisi xol bu ñu yuuxu ngay sant lii jar koyit bu ñu yuuxu ëllëg ña daa dëkke muñ ci dunyaa nga firdaw si lii xam koyit أعوذ بالله من mbooloo mi ak yéetee ngi nii waajuy nelaw na ko dal xam tey ndax te yeewoo gën nelaw mbooloo ak yéetee ngi nii waajuy nelaw na ko dal xam tey ndax te yeewoo gën nelaw tey yaari gaa seeni mbir mat naa xalam kiy daw lu bon fu mu toll ak ki lu bon di daw kiy daw lu bon ngën jib murit la bu yéggagul ki lu bon di daw ngeen jib murit la bu daw baraw kiy mus lu am ndog mbaate muy daw yéggagul ndeke yegg duutul dox di mus lootee ka daw bul def ba gis wax jii ma wax tax na nga naa yonnen mus loo ka daw laa jal lu xew daa mus loo ka daw dafa daa xamal xeetam wi waajuy door a fu mu war di aw kuy wut yiw kiw yiw di kët bokkewul kiw yiw di raasee gën asal kay raasu yiw foo gis murit buy raasu yiw dafa yëggagul dafa yëgg dëggu yiw da koy raasee ka aw na nga kuy door a day raasu yiw ngir nit ku bëgg ku goj dafay sëgg guy teraw sëgg guy mooy fekk guy nga xànc koo raw ci ab goj goj nag mooy la ñuy yoor ci ab teen ngir mën caa génne ndox na nga yëg ni nag kuy door a jóg day raasu yiw ngir nit ku bëggub goj dafay sëgg guy te raw kuy jàjj ab teenam te teenam bënnagul bu mu toppandoo kët waaja ab teenam di saw koo xam ni teenam saw na mën naa dal sol mbubbam ak yi dallam tewi ngir jëm na kaw te ku bën ab teenam ba sol mbubbam di bu ko waaja bënnul toppandoo moo gën di jigul kuy door a lii maa ko wax yeewul te gas kuy jajj day néewi nelaw gis naa la ngay dàq ab yëfus te seenu la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 sëriñ daame tey jii ma sàkkul lëlëf ci yonnen baag yàlla ak bamba sëriñ daame tey jii ma sàkkul lëlëf ci yonnen baag yàlla ak bamba li ngay wut ci ñii ñett yal nang ko teew yàlla boo di jiitoo ka bég bu bis ci baayit bu neefaa ko na jóg ràmm yal nang fa rusloo ku jóg bu bëri yépp deewal wal yi ñëw ba kenn desul yal na ngay mbër ma mbër yépp wekk te yal nang fa am pay gulem gépp pay gu nit ñépp xaj ndax ku lay sopp jak ku ñuy ñee kanaw yal na lay ñee kanaw sa ndam yal na rëy tey te ëppit ëllëg te foo tollu yal na ngay jëm kanam di dog mépp ndog tey ku lëf mën la dog te yal nang fi yàggit di jëf wépp yiw loo dee nga dekkal lu baaxul nga fekk sa mbir yàlla na gën mépp mbir yàlla na ngay defar ndaw di la biire it mépp mag sopp yàlla na wu yiwam ëpp xel ku lay topp yàlla nay ku ñuy ñeek a yëg sëriñ Abdu mboolem li wax ci yow teew mag manam yii bayit laa fi teg te kët doonte am naa lu dul yii bayit ma fab jox santal te ñaanal ma nag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 faral naa ko it cee ba dootul ñawit nag sa bopp sa mbir def ci man te def ma murit dëgg buy sab xarit dinaa wax ci yow lëf lu tax ñépp xam ne sam kem amul soow ak penku it ba ngay jàpp xaalis di dëddoo bañ akay sànni ci ga dex ngaraw képp ba ngay wéet akay muñ akay dunde ñax fa yéefar ya boobee nga fam ñépp not ba ngay jàng kay bind ñuy fooka moy fasag wet nga sut mbàkke mboolem ña sut ba ngay jaamu yàlla ka waye Mustapha te kenn nekkul ak yow nga am say mébét ba ngay xiifa kay marte dencoo bu waxoo kenn say lor nga semmal ñamat balay kar daa wër gannaaw ak kanam te yàqul la ngay def ngaraw am xelit ba ngay dam musak nii te kay toggu ñam ku jóg romb lay nga dib yaaramit ba ñuy naan kay foona kay tuxu di saw fi sag wet nga am lol bu feeñoon nu ba kenn déggatul lëf ci yow déggatoo ci kenn lëf nga am may gu kenn foogulit bañuy lii takay maa ji ngay jàpp yow akay julli boobee nga saf yàlla it bañuy woote ngay julli bañ wuy ji woo bësal mël nga def mbég ca yonnen ba it ku lay toppandoo tey ci lëf moo ko def nde yow dooma roomam te doomaa samit ku lay toppandoo teemu dox fee nga dox ba ñëw fii nga ñëw lii rafet moo gënit te kuy ruuja kay bay bu dee toppandoo kafar mànku dof ay mbiram yàqu it ku def tey lu dul jox la boppam bu wér te bañ laa defum naw la day alkukat danga dox fa mbëri yépp dox nag te dox fa mus la dox am nga jaajëf jumat danga boole waa àll ak waa kërit toraxuloo te jël seeni ndam lii rafet demoo wàcc saw nit ñu bon alkufar dangaa dem te fam ñépp yóbbaale fat danga man ci kër man ci ab àll yit ku xam-xam ni yaa ëpp ñëw yow ñépp fit dangaa man ci kër man ci ab àll yit ku xam-xam ni yaa ëpp yow ñépp fit kër ak ñoo bokk nag yam fi yow lu am doo ca bew doo ca jékki xulit ku dul yow gëtam yaa nga jëm genn wet te yow nag sa bët yaa ngi jëm gépp wet ku dul dafay may boroomam bëbët bu wér mbaa mu far may njabootam gëbët nga may yàlla yow bët te may ñépp bët sa wet genn tëqul sa wet yépp set ku dul yow geewet setee gee tilim bu geewet jotee sa kiit gee jot sawet yépp a set yow sawet yépp a jot bégal baarakallahu sam kem amut te noongoogu faw it di say dof yu rëy fajal yaa di fajkat te yor ay dofit doxal faw diggante ñépp tawat ba kenn dootu gis kuy jaloo kay tawat naxol yépp far sedd mbir yépp jub bu kenn ñàkkatiw yiw ba firdawsiit te mboolem ku lay topp dee ko wan lu koy dolli gëm ak rafet njortu te fenkal ci mboolem ku lay jox mbiram te leeral ko leeral barabbam ne defal gaa yi kay sopp far ni biddiw wa kiy weer a kiy jant nga far féete nag yow ci suuf ca kaw sa mbir fi waa suusi ak waa kawit te def nuy murit yoo defar yoo gërëm yu lay dimbalee kay bégal faw it na ngay bég ci nun faw nuy bég ci yow nu far dund ci topp téeméeri at te at mu ñëwee ci téeméeri at yoo ab jaamukat jaamu sellal ko it te nu mboolem lu jëm kon ci nun caay tiisa kiy lor tey ak ëllëgit dàkk mooy luy bëgg a ñëw nga fexe ba du ñëw te jàppal nu mboolem lu nuy teggi kon ci may ak yi cant ak jàmm it te leeral te baaxal te neexal wéral sa digg ak nu nit faw doylul nu te may nu wér way ci loo digal ci saa ngir yàlla ak yonne nit te bépp jullit def ma mbég cib xolam te dàkkul manaafiq akub yéefarit sama xol na fees ak sa mbég ak sa yëf samay cër na muccit ci loo diglewut li ngay soppa kay tànn nay saxa ci man te naa ciy saxet faw lii laa lu dul yow na may daw te naa koy dawit te naa lay fajal sépp soxlaa kawut yoral xol bi yor cër yor lépp nag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 ndigal ak ngërëm dootu benn murit ndaxam am murit saa su dul ndigal ak ngërëm dootu benn murit murit dëgg yombul la yombay nga wax ni man ab murit laate doo am murit ku tàggoogul soxla kay du murit ku tàggoo ki soxlaa di murit fabal sëb sëriñ teg fi xol xalam ba far fàtte say soxla lii dig murit murit buub sëriñ dul tuxoo fib xolam du am soxla yal di boobee murit yëgal kët ni duniyaa ak dex lamel te nag ab sëriñ moo di gaalug murit njegam ab sëriñ moo di gaalug murit moyul génn jëm fenn yow kiy murit ku génnul du lab mukk kuy génn lab akay lépp tey yaara yàqug murit telef man la teekat nga lab leb lu dul nga wut sëb sëriñ muñ ak murit ku wut lëf lu dul sëb sëriñ daal de lab telef jupp far xët sartiy murit wutal sëb sëriñ yow te loo ñàkk muñ te am fa bal jox ko kon ngay murit murid day muñug ñàkk muñ jépp lor ba sangam ba daakul ko luy lor murid lolay dal ci ak ñàkk mbaa lor muñal ba sab sang teggil la ko yow murid ba sab sang teggee sa ñàkk ak sa lor ko deeti teg ñàkk kiy lor murid joxal sab sëriñ sag jur ak xolit te bul wax lu bul wax lay dog murit lu dul maa ngi nii askadi yaa ngi nii bu koy wax bu koy wax lu déggal murit bu teggee gulit nag sa ñàkk ak sa lor ku koy deeti teggeeti tontul murit yabal nit fi sab sang wax ko lëf lu dul maa ngi koy sopp kay dug murit bàyyil dëgg yóbbante lëf sab sëriñ lu dul ak jur ak bëgg a def am dangay sangloo sab sëriñ saw yaram te boo yëngu tookat mu daw laa murit xamal yow ne ab sang day sangu nit te doo mu sangit ku deewul murit mu kallaf mu deewul ku koy sang mooy te ab sang mooy til lii murit li lee tax ku tudd murit yomba gis li taa gis ku tudd murit tey murit murit dëgg day dee te deewul asal le dee metti metti jotul ak murit amaana nga gis waa tëb dal di dee te doo gis ku tëb dal def am murit gisal waaye ngi jóg di daw ci murit ba am ay murit kët te kët du murit gisal kii itam jóg di daw ci murit ba dundam ba far jee mu réer ak ku fas ni ku am ay murit dib murit te fas ni ku ñàkkiy murit du murit xamul la fi yëgul sax li am ak li xew ci murit sax xamul luy murit li lee tax ba saytaane war tey yi tënku murit nag ci am ay murit te sax kuy murit ak kudul am murit te bis peñ ci lay feeñe yeewul murit bu dee see yoo kay fexee jóg di aw seraatit nga xam yow ku doonum murit balaa kenn xeebaate war naa negit ba xam lay fasoo xew ci bépp murit murit yépp a ngi mel ni gàncax gu sax te gàncax xamul ak mu jëm kat murit te gàncax amaana mu jóg neex a gis maral dog ko jëkkuk ñoram cay murit amaana nga gis gàncaxit jóg wayaf te naataa nga far jot ko waarul murit li ngay mujje yàllaa ko xam moo xamit kanee nit la muy mujje jàppul murit bàyyi li yab nit dox di xeebi mbiram amaana nga yab kook matoo ko murit ko tàbbib nawet nag te góoboo ba ngar ba far man doo xam la ngay am murit ku déegul lu xam-xam du xam ay mbiram na ngay muslu foo tollu am ndog murit na ngay tuuba kay yeesalug njébbalit di xeebit sa jëf yépp ak sa murit ku xeebul jëfam dal naw ay jëfam ku naw ay jëfam dal di set ci murit sa jëf boo ko dee naw dangaa réere kon ni yàllaa la sàkk ak sa jëf yi murit njagam xam nga tey jii ni jëf bu wér ak sa jëf yi bayil ndam murit ku gis gopp buy naw mbayam moo ka dof te waxe jii waxe yow xalam koo murit ka gopp baa nde goppam ba kay te yow yaa di gopp bee murit sëriñ bee la yor moom itam Mustapha ko yor yàlla yor murit sëriñ baa ngi jébbal ko say mbir bu wér te def ko sëriñ kon mu def la murit xamal lay mbiram yépp jox lay ngërëm yu dul jeeki bar ki ngeen ji murit tegal lay lor ak gàcca ak ñépp ndog te yóbbal la yóbbal sa bépp murit nga far jekk-jekkal sa bépp murit nga sellug murit nag ñu sellug murit ba ngay sant ñuy sant ngay bég ñu bég nga mat ab sëriñ yow ñu mat ay murit li lee dig cëriñ nag la lee dig murit lu dul luy du gennuk cëriñ du murit defarkat bi maa ngeeti ak saatilim defar maate yow mii defar sam murit xesaw naa te fees ak lu soof ak setal maa ki yaa di murit xesaw moo di xeeñ xeeñaay bu tar xesaw naa te fees ak lu soof ak lu bon setal maa ki yaa di géejug murit doxal saa di gég luy waral ak tilim te leeral ma far def ma jantum murit gërëm naa la xam naa ne mat ngëb sëriñ bu wér waande yal naa la mat am murit te yal naa la saf saf sa bépp murit te yal naa la am am sa bépp murit joxal bépp jullit lu seddub xolam ba mboolem jullit yépp def say murit fabal say murit yépp teg nag ca kaw bu kenn gis ku suufeeti tey am murit ku dul sab murit yow nañee sab murit te bul baati kenn ree sa benn murit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 te doy sëkk góor ak jigéen ak ku ne ku koy sikk nekkul ci suuf ci kaw mbiram fes na ni jant tey moo fi ne ba na suuf ak kaw ak bépp jëm na kaw aw turam dem fu ne ba max nay ngëneel ak njariñ képp nit ba koo mu feesal te am nag lu ne bu seeroo ku sàggante bon mel ni man mu fab teg ca kaw far ko may sag bu bu dee ku ñuy xeeb kay dox di xas mu nëbbug bonam xëpp ko wiiw wu ne ku ñuy dox di suxuloo ko soowug bonam balaa jekki koo kee rawee kay gëne bu jàppee ku bokkam ya fab sànni fee bu delloo fa bokkam ya moo fay tane ngëneelam yi ñoo daj kajoor ak bawal te daj penku daj soowu daj wet gu ne amul genn wet guy ngëneelam newul ndaxam gaa yi ji waaye gën waaju ne te yàlla naw fanam ak sunuy fan di wey nu far mucc am fan wusut fan wu ne te yàlla na xolam sedd faw wit ci nun te far sedd seddit ci mboolem ku ne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 bu yeewoo dafay teel a jëm ci mbiram jógal jëm ci sa mbir te bul toppandoo ñi boolek tayee nag nga meena ngëlam lu nit fab di yóbbaale bàmmee la koy fajal lor lu dul loola fajtil loram te ak jur aku ku dee doo ko fab di yóbbaale faggul ci sega jur ngërëm te mboolem lu nit saytu yàllaa ko fab abal ko te buy dee mu nanguy yëfam liggéeyal ci say yëf te wut cay njariñ lu jar dem ba say yëf te la xoo ca ndam ku xam dëgg loo am balaa jee nga am ca lu dul nammatee jee ndaxam ku am dex akuk jajj tey gas bu wér balaa deq baa jee mu seerum ndoxam ab deq mel ni ab déeg foo ci nawet ku am deex akub jaaj tey gas bu wér balaa deex baajee mu seerum ndoxam te ab deq nag moo di dunyaa yëgal te gas moo di ak jaamu jaamul te gëm wér ak dund ak wërsëg kër gu jag du lëf kët ndarab deq yewwul te xam ku deqam ba xëy jee te bënnul përëj mu dëkkew ma rag mer di réccuy jëfam xarit dëgg naanal te gas bënn yow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 maroon naa nga bënnal ma teenub cofeel ma xiifoon nga far jox ma dàggay nga neel ma ñàkkoon nga jébbal ma mbooloo ki ma réeroon nga xëy may ma xam-xam bu ma soofoon nga far def ma géejug xoram gu saf sàpp seexal ma jox may meteel gërëm naa la nag def ma ab santkat bu lay sant kay way ci barkeb jabeel samay yëf du jee ndaxte say yëf du jee ba ab sang dul jee jaamam du jeel damay sant ngir yaa ma dàkkul lu bon bu wér ak bon mbàkke yow laa fi neel ku lay wan cofeelam ma wan koy ngërëm ku lay wan mbañeelam ma wan koy mbañeel ku lay sopp dundam gajag dee gajag ku lay bañ bu dee dal dem naari beel mooy sax ko te dootoo fa jóg ba faw ku lay sopp dundam gajag dee gajag ku lay bañ bu dee dal dem naari beel ku dul yow mag solo soloom ak mbiram jubul sam pexe jub te yaa nuy fexeel yërëm nooti dolleeti nuy mbég yu rëy yu tooyal sunuy xol te may nun noteel bu siin ak bawal ak kajoor jolof ñëwan dal feesal te doo xaaja jeel pëbliixi nan an jamiixil waraa muridan sakooran bu doy lay nganeel ausu billahi min alseytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahimi wa sallallahu ala nabiyihi alkarim kolay ji ñatib sanga kay naw sa mbir xamal ni ab dof la doo benn kët kolay ji ñatib sanga kay naw sa mbir xamal ni ab dof la doo benn kët ku bànneexam ak addunaam ak bakkan di jëf loo ka waxuloo du ab sang kët bu fekkoon sa baay ak fi gën te moomoo bakkan yow gënoo kenn kët bu fekkoon sa baay ak sa te toppoo bakkan yow nga gën ñépp kët sa baay ndey gën te jëppoo bakkan di not fa wutartil nga dib sang kët bu ab jant soo ngay fanaanee nelaw di neenal sa bëccëg du ak càng kët ni dell ak ñam ñu naa sang bee ga dof nag banaaxu dangay sanku kët ni dell lu baaxul ñu naa sang bee nga naaxu ngir dof dangay alku kët ni dell ak mooy ak bu rëy ak tilim ñu naa sang baa ngi li leb kët ñi lay kow kowee kay siyaara ka gëm dañoo réere bon gii nga bon rekk kët bu fekkoon ñi ngi gis te bon gii nga bon ku jóg teggi lay wéytal yi xam ko kët bakkan joñ la jiital nga far dib laram ñu naa yaa di ab sang doo benn kët lar mooy joñ la jiital nga far dib laram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 daan na mooy xam ni day mën a jam lu mu diir rekk jam ko te bul def ba am puutar ak bal ba tax nga fab sag fital naa damay jóg rëbbi ku dul gis lu ko ndel la kiy wal di faj bu téqee du jam lëf lu dul àll ba fabal xol bi fab jur gi fab dàgg ji te fab kër gi ngir yàlla jox sang bi te gëm yàlla gëm sëb sëriñ gëm gure yi te am ak rafet njortu tey wóolu ba rafet njorta ku wóolu yi yaari yëf la ëpp taalu béy te jóg daw dabe melal yow ni waajuy faraasoo ka tex di wallee bay tey rafet njortu ba faraasu mooy jamono yiin toll koo xam ni balaa nawet bee ñëw day ji dugubam buy taw fekk mu daal di uh, am njiyam bu tawee mu daal di sax tex nag mooy nekk ba mu taw te door a ji sa dugub walli mooy bu dugub ji saxee ba noppi nga wàññi ko ngir dugub ji mën a màgg loolu lay misaal mm, ci dunduk nit melal yow ni waajuy faraasoo katex di wallee ka bay tey rafet njortu ba te bul def ku yàkkamti koo xam ni kii bu dee tex di wax kañ bisum ñamte ba awal ngir ma tey jaaba kay waaxu yow di wéy rekk kon lee nga gis dëkk ba te bul geesu bul jadd it bul taxaw te yëggoo moyul dëgg yow gàkk ba yoras lëf te yëggoo di pakkub ku jóg day toppi sangam soril pakk ba pakk mooy lu mel ni bant lay doon bu nekk ci aw yoon kuy dox ci xooloo ko mën na laa fil nga daanu sab dox yéex ku yor soxna yoro fas yoraale yi alal te yëggoo na ngay yegge yow dëkk ba fabal lépp jox sëb sëriñ yow te wey wayaf toyyi kon lee nga jóg gott bi ku jóg suubu manding bu diisee du dem te manding nga suuboo jógal gott bi ku yëggul du mos kët la waa kër ga mos dawal yëgg waa ba mos nekk ba nekk mooy Grèce la nekk ci lu jar dëgg ngay dundu yow mii ba dee te foo tollu nee baa doola bi nangul yow ba am gépp pal mbaa nga dee ba kuy jaale naa ay lar bi yàlla bi na ngay dund mbaa sax nga dee léegi far te bul dëkk yow mii fi diggante bi ku baaxul ku naa kay ma ngay dund fen ku naa dee na fen ci sa dund bi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 ma jóg man te dee yaale ak sang bi ba dag yépp booloo ni xëndëng nelaw te dee yaale sax kët balaa saf nga nekk ba mboolem ku doon soowa kay wax selaw li may bëgg dee yaale nag duy dërëm du ay soxna duy fas du ay taaxi kaw du ay toola kiy dàgg duy kër yu rëy du mbooloo mu may dox di santoo ko aw du luy ràppa kay tas du luy jeeka dee du lëf lenn sax far lu dul am la yow te yow bamba mi wax yow ki gën ku dee fii siyaaree ka mokkoo kanaw lu dul am la am laa ko gën maa ko wax lu far far lu dul ndaw sa ndaw saa ko ku far ndaw sa doyloo ko doo ku far ndaxam ndaw sa dee tey furaatoo ko ndaw te far wuy gërëm loolu dul jël bu wér yëgal yow ni far woowa moo gën di ndaw ku dikkën fi as ndaw mu jox koy séram te jeebal ko laaxal karaw tëri jot mu tëdd ak moroomum faram ba kookiy séram kon na wax ca kaw lu far am lu dul ndaw sa loolee du tus lu dul ndaw sa nax laate doy nax yu ndaw ndaxam far wu bon sax du jël ndaw sa gën te ndaw si ma gis ak canam dootu sew la muy bëgg yombul la muy wut sewul ka koy jël du sax gën du siiwey nelaw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 pexeelug murit yow ba am ak murit te def lu dul lii du faj kët dara ku te bëgg dal ci cëriñ jël ak murit doo ko man kët te doo am dara ku jéggig murit dem di yootug cëriñ dafay ñàkku yiw ñaare amtil dara ku jëm ci cëriñ faw dox ci murit doxal ci murit boo bëggee faj dara lu guy rëy rëyub datt ab gif la wan sëriñ dib murit wan bu moomul dara sëriñ day bawoo cig murit dib sëriñ njagam lii amul doonagul kay dara ndaxam bépp lar bopp xolam bëggalëf lu dul jëmmi sangam yayoogul dara ku bëggul lu dul yàlla dëkk képp xolam narus yàlla seetub xolam gis dara ku sab xol setul wicc yelloo walaa pexe laaji kon yàlla yow sax dara wutal ndab ñu dal lay joxu ñam wu doy te ndab lee di ab xol bu bëggul dara ku bëggul lu dul yàlla fees ak njariñ akuk mucc dib lar bu ñàkkul dara damay sàkku nag ndab aku yiw fi yow ki am ndab aku yiw te bëggoo dara ku dul yow amul ndab amul wenn ñam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 bu may jóg teraanga ak mbég dal di jóg bari cant xam naa man war na ma ku tàggoo ku ay nag te lëkkoo ku yiw bu santul boroomam bu wér bett ma ku am wér akug dund ak mbir mu jag mayam gaa koy wax jógal sant ma te yii yépp am naa ko man Baabakar tawat man banaa la yawit nag ba ma ta yow cant mi gën tawat gën gu wér asal jàpp naa laa yawit jàpp ma tawat maa ngi lay daw yawit dee daw cëkët maa ngi lay muslu yow muslu ma teyit cant laa jàpp def kob xarit tawat dëddu naa laa yawit dëddu ma tawat léegi tàggoo nanum ngir wéyal tebul dellu seeti fi man fàtte ma te bul may ganeete ka dox saa barab te foo man di jubloo te man teggi ma bu sab tànk jam saa genn kër na ngay moytu saa kër manit moytu ma moyul saa kër ak saa yaram ak samab murit faww nag yow tawat moytu ma laxas naa la ab tànk yow canti mii te man jublu naa laa yawit jublu ma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 li tax man ma jaaxal samay dama demul won ba ñuy dem tefar jiitu leen dañoo jóg ca man ma xëy man di muñ bagaalug ndigal ñaw ma war romb leen ñu mujj may dox di santoo kadab te seenatul laf ci man waaru leen ku daa santu aw nit di waaxoo ka daw ñu far mujj koy santu ndax yéemu leen sëriñ bii du maasum ña teew ak ñëwey ñi teew ak ñëwey ñépp semmal na leen ku koy wékk mbir am ñu lay wékk mbir du leb loo ko mos murit sant leen du wax jenn waayam muñal jëm ëllëg da koy dal di jox di ko ëllëg yeneen dañuy ñee ko kam tey bu ëllëg ñawee ñu far gën ko faañee murit seere leen te ñam wu ñuy togg woo xam ni day xaloo yéemu buy bax xesaw dégg leen li nuy am ci kër gi la nuy am ca kër koy xaloo gën murit waaxu leen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 liggéeyal boroomam baam lii mu am ma jóg man liggéeyal sëriñ Bàmba mi liggéeyal boroomam baam lii mu am bañuy kër këree kay xare kay wasal ma ngay jaamu yàlla kaway yonnanam ba ñuy bëgg dongoo ka wootek cëriñ ma ngay bëgg ka sellal jëfam bañuy ñuy fonki juddoo ka fagguy alal ma ngay fonku diine ka faggu bi yaram bañuy ñuy denc jurgee ka aayee ka nay ma ngay denc téere ka dëddug juram ba ñuy daw di dab ëddunaa kay kobas ma ngay daw di dab yàlla daal ak ngërëm ba xalxalee kay jamaalee ka jam ma ngay diira kay jam ngërëm jam na ndam ba ñuy taali jàngoo kawal ma ngay sos ci suufuk murit cey mbiram ba ñuy xam bu kéefër di xam bu ma ngay xam bu taalub boroomam diggam ku daa taalakub taalamit fay na tey kamaj bamba daa lay bérex ak ñoñam te yàlla nay bérex nuy bérex muy bérex nu teg cey faw koo gis wedam nu déggoo juboo am ngëneel ak xoram gudd fan am lu kenn mës am أعوذ بالله من الشيطان ngërëm gaa ngi nii tey dem na jóg ñaani paas saxaaru ngërëm gaa ngi nii tey fi nun ku bëggul lu dul dem na jóg ñaani paas te mboolem ku duggul bu déqee ba wéy nga rus sonn am gàcce nan ñaani paas di saggan ba muy dem nga jóg nag di dox te doo yegg ay la nan ñaani paas te jóg léegi daw dugg moo di nekk ba muy déqi ngay yuuxu nan ñaani paas di yuuxoo kawakkaaju muy daw di wey dotaarum mu kàllaf ñaani paas xol jur akuk aw ndigal faw nag yëgal yow nii yatt ngay ñaani paas te doo tabbi mukkit saxaarug ngërëm te jàppoo bu wér yatti ñaane paas ku fab xol fa bug jur fa bug aw ndigal joxub sang waatal ne doo ñàkk paas cofeel ak rafet njor takug wóolu it ku fa bi yett yi jox ko am ngën ji paas ma far wax nag luy saxaarug ngërëm ba dootoo ko réere ti doo réere paas saxaarug ngërëm moo di kët bamba mi ni cas nag sa jox ko looloo di paas te bambaa ngi nii di yab aw nitam njegam bëgg nga raw jox ko paas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 jógal far li yaa ngi ci bu lolli yow teeb lolli buy wéy amusul fi jafe njëgam mu nga bu lolli lollee ngi nii wéer ak dundu ak doole lollee jafe ku sab lolli ñëw nag ba say yëfu ni xos la gën ngay ku yombul kumaasam jafe jëfal guddi jëf bëccëg ak sépp ba ko seeru naa kii jëfam yee jafe ku def nii ci sab li doo jeelëlëf bu nooree te doo xaare yeewoo jafe bu dul kon nga nelaw koo fu gis ma ngay farlu ngir xam ni lee jëf jafe ku jëm cib ja tey romb xaalis di wey bu yeggee di gis yëf ya teg njëg jafe bu nit nee la sara ñépp naa dootu jóg mu xemmee ma jóg jëf te jóg jëf jafe xarit dëgg ngooral ci xaalis bi yow te kat léegi seerub dërëm sax jafe ngoor mooy looy ëmb te ci say loxo nga ngay ngay ci biir euh, li nga xarit dëgg ngooral ci xaalis bi yow te kat seerub dërëm sax jafe ngirug mag akug ràgg ak dee ngi ñëw bu ñuy yëkk si defu lëfu bon bon jafe defal yàlla lëf bu mujjee jafe amas lëf ci yàllaati gën koo jafe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 ku muñ yàlla far ub sa buntub tawat te ubbil la buntub yiw ak suuy bu neexee sunub sang nun leenu ree te mboolem ñu nuy noonu it dëkke wooy ku nuy rëbba kay wut asal doonu gis ku dul jóg fi sangam ku koy rëbbu sooy fa yónneen ba jaaroon ba wéy ak ñoñam la bambay doxoon nun sunuy xol na tooy bu soobee ka bindoon aras leenu jóg te jag faw ànd ak xol yu nooy ñeney dox di reetaan kay wax lu bon dañuy mujj bon bay foraatoo ka yooy sunuy xol na sedd sunuy soppe bég ku nuy socc doore su nuy xaaru xaddi ku bañ du bég xolam dootu sedd te taalam du nooy ñaay dal du nun kay ña lottit du nun ak lotta ngay jëm ca ñay fooka fuuy sëriñ baa ngi yor nguuram ak xam-xamam di jox ñii ka xaññee ka jubloo juuy te nun yal na jóg jublu noo kiy mayam te joxunuy ngërëm faw dàkkul nu jooy أعوذ بالله من kay dox di bañ li ñuy bañ ci man mi du mi ko def ndaxam gaa yi may sii sa kay dox di bañ li ñuy bañ ci man mi du man mi ko def li ñuy bañ sëriñ bee ko fab def ci man ndeman lottu naa sax ci def lenn lëf sëriñ bee ni cas ay yëfam def ci man yëfam rekk laa yor ndeman aw ma yëf dañuy gas ngirum ndox di bay ngir dugub mu jox mag dex ak ràcc mbég par ko sef ràcc mooy bu ñu toggee laax te mu tàng noonu ñuy def ko yëkkati ci kudd gi ngir mu sedd loolu moo tudd ràcc dañuy jàng xam-xam di wut ay dërëm mu jox may dërëm sol ma xam-xam ba faf dañuy wut ngorooki gorooki jabar mu yët may ngorooki jabar lii du kaf dañuy jënd akay jur mu ñëw far ne cas lañuy jur akay jënd jébbal ma tef bileb danna yombul te moo dàqa jam kemam yépp buy téq cin dal di saf bu dee téq lor dem njariñ dal di ñëw ngërëm yegg si xol sedd kii baaxi jëf du mooy ay moroomam te nag am xelam du daj mooy boroomam ragal na suruf dafay dimbulee kay fabee kay jariñ di may ñépp ab yar di diglee ka jëf dafay wattu boppam di wattuy kemam du fiiree ka jànnee du wan kenn laf laf mooy doole auusu billaahi min asseytaani rajiimi bismillaahi rahmaani rahiimi wa sallallaahu alaa nabiyihi l kariim rëyug bon du man ma jóg jëm ci yow nda yow dong laa am ci ab jublukaay rëyug bon du man ma jóg jëm ci yow nda yow dong laa am ci ab jublukaay barib tër du tee kay ma jóg jëm ci dex di yaakaare set nag bëggën jépp amul gàkk boo ni mën naa waral ma jóg mooy la ngir yaa di saa puutukaay may réer a kay a kay bon jëfit samay njortu ñëwul ci yow ngën ji baay ñi baax ak ñi bon seeni jëf yaa ko te yaa gën ci ñoomi nday ak ay ndijaay danga am ku man te man oo ku dul yow faral def ma ab wuutukaay te yaatal ma bënnal ma may ngën ji dex gudul ngiis akay fer akay jeeka daay ngiis mooy fu ndox nekkan ba yàgg mu dugg ci suuf ba jeex loolu ñuy wooye ngiis fer itam mooy mu dem ba ndox nekkatu fa nga gis fa ndox ma nekkan di def ay fett fet daay nag mooy mu dem ba mu xamante ni day far mu mel ndox mus faa nekk lu may ay ay der rek des fa te yaatal ma bënnal ma may ngën ji dex gudul ngi sa kay fer akay jeeka daay te feesal ma ak kee gu gën gépp gu saf yàlla saf ñépp may fab di jaay kee moo di wurus ak xaalis ba mboolem ku ñuy ñee kaxal seeta ñee ñu far bokku nuy ñee ci bépp jataay ku ñuy topp ñeenu ka cay topp ñee ñeniy topp nuy ëpp ñéppiy ngañaay fabal lii wax may nu faw ngërëm ngirug baaxe tab ku lay roy du aay tabeekub yarak yërmandeekug lewet nga fab xeexe yow mii ba not jépp waay li lee dëddu ndaw dëddu mag te ci yow def la ab jublukaay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 ku mos yàlla aw nit aku du saf te xol ku saf asal yëggu la ku mos yàlla munuñ àddunaa kiy mbégam te dootoo ko soppit ngir gent la xarit lépp tee nga mus dee ko daw akay mus lu ngir loola saytaane la na ngay sell sellal sa xol set welas nga far dëddu dunyaa te wey noonu la ku lay war faral war ko jëkkug waram te duniyaa waram yi ku déegul ci la faral dëddu far muñ bu wér ngir ku ñuy wutal lay muñub cox bu wér war na la ku feesal sa biir ak cox ak am si bet bu ceeb ak cerey lay jógee teg la cox mooy bu ñuy waaja defar cere dindi gi ñuy diggan dindi la ca ñuulan ca kaw ba mën a nekk cere loolu moo tudd cox sibet mooy bu ñu bu ñu ko soxee ba noppi jël ko def ci ndox mi raxas ko ba mu set ngir mën koo wal loolu mooy sibet mu ne ku ca duy sa biir ba mu fees ci ab cox ak am sibet ceeb ak cere lay bu jógee dalay ceeg cere lay nag mooy cere xam ne dañ koy bësee diw ñor def ca yeneeni mbir mu ne ku ca sa xol ba mu fees ku ceeb ak cere lay lay jógee dalay dalay tegg boo ko duyee ci cox a sibet ku feesal sa biir ak cox ak am sibet bu ceeb ak cerey lay jógee teg la ku duy sab xol ak hubbu yëf di woo yàlla kon nganam jomb la ku duy sab xol ak bëgg dunyaa ki yëf di yoo yàlla nag kon nganam jomb la ku dul dox di xemmee ma dul alal daalaku nit ndaxam gumbala ku jóg ngir wutu nit asal bokkul ak ku jóg ngir gadaw nit lile bu wuute am am lu as ndiine ngir bëggu nit ak gu jur lileeg mooy la ak sànku royal yow ña daana bu ku yiw te bul feeñu ngir bëgg ken topp murit seetu baa ngi fabal seetu nag baxam taq ngas mbon mbonam taqu la fabal dal di seetoo te loo gis faxas njëgam bëgg nga buur ak ñoñam sopp defal lépp luy tax ñu naa yaa te daw lépp tax ñu naa baaxu la auzu billahi min alseytaani arrajimi bismillahi arrahmani arrahimi wa sallallahu ala nabiyil karim tawat naa samag bon ci yow mi fajal nit bon jógal faj ma yaa faj ku ne tawat naa samag bon ci yow mi fajal nit bon jógal faj ma yaa faj ku fajal dëgg mboolem samay ragg tey ba mboolem samay ragg wér wér gu njagam man damay bon bëggën fee bonit du tee mbàkke may seenu ngir yow lu ne lu dee faame bet maa ngi koy seeru ngir dangaa def ko am ngor te gën waaju ne ña daa jàpp mbooloo jubal seeni mbir ci saa boo fatee won ñu mel gone li ma isoo fa kay def ku suufee ka bon du tee ma yaakaara am yiw wone te xam naa ni lar yépp man ñoo ma gën te saa yooya booyit ma gën lar bu ne te xëy jiitu gën ñépp jumbul ndaxam ci man ndaxte saa sang bee gën bu ne lafañ sax bu geewul te war gaalamit dafay dal di jot ñépp far raw ku ne ku baaxul te sab sang gën ñépp yit saxal cant kët war ci yow war gu ne la bon dëgg sang ak laram bokk bon ko bon sangamit bon mu bon bon gu ne la gën dëgg sang ak laram bokk gën ku gën sangamit gën mu gën gën gu ne te nun nag sunub sang gën ñépp kët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 sëriñ bi naa muñ lu dul yow mi te fàtte lu dul sa jëmm may mali lii kooka may du loru koo xam ni jàppoon nga duniyaa jox ko mu yoru te xam ni jëpp la may gi jox ko it mu loru murid day fajal abu sëriñ ay loram sëriñ day fajal ab murit ay loram murit day fajal ab sëriñ ay loram sëriñ day fajal ab murit ay loram ku fab lar yanul la yonul koy loram ku jóg faj semer ay jógal faj meram ku gàddaaye suufam ba ñëw nag fi yow fajal koy loram yépp gàdduy mbiram murit boo fu gis gan la ñeelub sëriñ di yar tey teral tey seral ab xolam bu baaxul muñal sab na tookon bu wér te koy fexe génne ngir ak bonam gisal dëgg saytaane bon gii mu bon te yàllaa ngi koy baaka seet ak yëfam yawit dëgg bul def ku bëexul nga fab ni xër lii kët du xamal yow ni lay ndam mel ni dex ki fees ak yiw ak ay te tilim melal dëgg nig dex te mboolem ku ñëw fi yow ngay gërëm buy demit ngay gërëm te bul dàq bul bodde bul yàq nit na ngay maandu bul lor ku ñëw mbaa ku dem ku jóg ñëw fi yow jox ko àqam mu dem bu dëddee fi yow dem bayil ab deram ku ñëw may ko ab yar te sàkkuy mbégam te buy faddu say gët nga fàttewu turam faddu mooy bu bàyyi koo fi yow dem ku ñëw may ko ab yar te sàkkuy mbégam te buy faab du say gët nga fàttewu turam na ngay muuñ a kay ràcc sab xar kanam te bul defu ku bon kuy rasub xar kanam te bul reeke bég bay niroog ab dofit bari ree ak mbég du may nit xorom ndaxam mépp mbir digg doomoo ca gën ka yee sëkk ëppal ku ne kuk moyam royal na ci suuf si nga gis ñépp war di def ay te doo dégg bis njàmbatam dañuy jàpp xaalis di jàppi tojal di def nag ci biiram te déggoo waxam ñi baax ak ñi bon ñépp a toŋ ci kaw di jëf yiw aku ay mu taqoo xeram ñi ngi def ci biiram lu baax ak lu bon te déggoo mu naa ëska it mbaate cam ku bëggul lu dul raw ñateew ak ñëwe yi te raw ñiy fasoo ñëw na sàmmi cëram te fattey moroomam te farxante woo digganteem akub sangam ak ay jëfam te dëkk ak rafet njor takuk aw ndigal ak gutuub ak ko cant ak sax ci gëm di noppee ka farloo ka yéemu bonam lewet doom tey jàpp ak njaamburam bu guddee mu jóg tey xalaatug moyam te naa yàlla moo tee nga far yërëm di waaroo ka waaree ka xam lee ka xam di la biire te bëggu yiwam njegam man nga lii yow defal boo mënul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 ma jóg sant bambaati ngir moo may lu saa xel lu saa dajul ma jóg sant bambaati ngir moo ma may lu saa xel dajoon ak murit yaa ngi booloo di lim seeni may te man jéemu maalim samay may asal dama torox ngir lu rëy lii am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 te kuy wut lu dul loola ay xelluwul ku am yàlla am loo xam ko loo xamul ku xam lu dul yàlla xam nag mbugal ku réeroon ku deewoon ku taalam fayan kamaj rekk laa won bee ma ba maa ngi bérëx nag di wal fay nu may sante gii may xarit yow waxal ma wax yàlla tey jii akub yonnanam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

te gis cant dégg may te doy li lee tax bëgg a def cant kër te far def ko mbubb ak malaan ak tubéy te def kom ndox ak ñam akub sant far aku fas te war marhaban nii kay te def kom ndox ak ñam akub sant far aku fas te war marhaban nii kay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 yeyootoo lu dul jógu la géeyal ko tey ku daa bay ni ab xiifatee mbay mi jag bu koy ndab wëreetee mu jóg dal bay ba ngay xiifa kay mar nga am lay wujub nde tey ji nga reggee amoo wenn lay lu dul fab sa gob di doomal di sol te ak dund moo nawet lee mu wéy ku am sawat ko am sawat ko am sab nawet nag di farloo kaba i bu nooree ngëree kon te bég mbég mu rëy ku sanniw sasam fee te sanniw sayam bu dikkee fi yow bayal bul koroy te koo seeru kët am na aw sas wu rëy wudul jeete diiwul wayal gépp way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 fesal wet ku koy def du ndox asal te kuy denc ak jur ma gas di jal na ngay farlu ci bu gas te loo gas anal na gas te loo gas fabal génn yow lu ñëw fab ko joxe sëriñ far mu jël sëriñ moo di am cee boloo tex mu sax texal lépp loo bëgg tey bay di sol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 sa jëmmi sëriñ ngër milee jub awal na say tànk booloo ci kaw menn ngër njegam bëgg ngaa yegg foo yëggagul sa wax jépp nay jëm ci sab sang yow sa jëf jëm ci moom ak sa mboolem alal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 te lool yi du am mukk seeyal ñu naan na ngay dëre niw doj di gew sab sëriñ ku sab sang naanul asal doo naan li tax nangu woo seeya tax sab sëriñ du nangoo jógit fab la moomit di naan ku seeyul da diw doj te nit nag du dof ba jóg jàpp aw doj di yëngal di naan njëgam bëgg nga sab sang seeyal ba jee mu am la nga am ko nga naanit mu naan ku siiyul ba jeex tàkk sak caf ka des ku sak caf ka des tuuti doonee xanaan murit dëgg seeyal ba jee tàkk yow nga dem ndox di suukar ba far nee xanaan te sab sang kay doo ko saf mukk yow te seeyoo ba dem ndox mu yëngal la naan ku seeyul du saf waa ji seeyal te saf te saa safee sab sëriñ fab la naan murit bub sëriñ naanagul seeyagul bu seeyee sëriñ dal di koy jàpp naan te suukar bu seeyul ku naanet du saf dafay jàpp suukar su seeyul di naan balaata lu bee xëy di kenn ak sëriñ di mbubbam di jëmmam sëriñ fab ko naan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 na ngay wattu kay kenn yóbbaale la te nit daana ànd ak